ورتل القرآن ترتيلا ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي القائل أدبوا أولادكم على ثلاث حسال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأسفيائه وبعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ñu continuer ci liggéeyu alquran bi ñu Five. إلا تذكرة لمن يخشى فاستمع لما الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربي ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما الفلك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آه العالمين نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقيكم غناب سنت برام سبحانه وتعالى جلتي سانغو سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñi ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi sunu gan gu baax gi te sell lool yiw ak si ci suñ biir di sëriñ si sa sëriñ Sidi Ahmed ibnu sëriñ Abdul Aziz si Al Amin ibnu sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu ibnu Cheikh Seydil Hadji Malick رضي الله تعالى عنه ابن عثمان ني سانت يالا تي خيوال گيم نيو خيوال تاي في تي توندو تون ام في گان يو سل مو فگو دوم بايام سني عبد الصمد كون دانا مانا واخني شيخ سيد الحاج مالك مو في تيو مام بروم توبا رضي الله تعالى عنه مو في تيو توغاي بوب رك لا جيس allahuma la aduru di nuyu tabarakallahu al imam Khalifa Diop di ko ndokkale di nuyu mboolem imam yi nga xamante ni teew nañ fi di yëgal sëñ Sidi Ahmed te soo ba léegi ñu ngi fi ànd ak seen rajo télévision Safina TV muy jël mboolem loo xamante ni xew na fii ci jotaay bi ca wàcce kaamil ba ak ca xatmul quran ba ak ci waxtaan yu am solo yi nga xamante ni mbokk yi fi jiitu woon def nan ko ngir yàlla ak jotaay bi kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp e mu mel ni kon ñi ngi fas yéene taataan lenn ci waxi boroom xam-xam yi nga xëy ñi ngi ci kaw du ñàkk incha allahu taala imam xalifa dina jël kàddu bu jëlee kaddu dana gën a yaatal dana gën a sarxa incha allahu taala bu ca àggalee tabaarakallahu Cheikh Sidi Ahmed dana jël kaddu dana fàttali mbokk yi ba kenn ku nekk boo demee am loo yóbbaale te loolu rek mooy li am solo waaye di la fàttali wax ne la nga ñaanal suñu xalifa bu baax ci. liggéey bu rëy bii nga xamante ni mi ngi koy sumb ñàkkul toog na ci ak yow waxtaan na ci ak yow su ko defee nga jaanal ko ci baax mu am ci ndam ndax lii mooy ndonal mag ña alquran ak sunna wax naa ko ci suba ni yéen bi saa dafa fii ne am fiikum amrayni maa in tamassaktum bihi falan tadillu min baadi kitaaballahi wa sunnati maa ngi dem waaye ñaar laa leen fi bàyyil moo ak sunna su ngeen ci jàppee du ngeen sànq du ngeen réer mu mel ni alxuraan jooju nag ah, yàgg na fi lool moom la gën a bëgg a dekkalaat mu gën a jëm kaw waaye ci beneen façon bu méngoo dëppoo ak jamono incha allahu taala boo ko defee boo ñaane rek danañ sañ am yaakaar ni loo fi ñaan sunu borom dara ko nangu ndax ni béréb bi demee ak fa nga jóge ca xadratul malikiya fa tabarakallahu am kontante lool am bégte lool ci gis la waaye di feeñal ni lépp loo xamante ni woy juróom yu baax ya ak maamam yu baax ya ñu ko doon taxawee ci wàllu diine ak ci wàllu daara ma nga ca loolee ndax ñun bi nu gënee nekk di ndaw gën a ndawe lool di soo a commencé jàngale ñu ngi bokkoon ci section bu Tivaouane ñoom Ousmane Diouf miin nga leen ñoom Khalifa Diop miin nga leen ci ñooñu lan bokkoon di jàngale ci àll yi ñu ngi dëkk Saam Njaay yàlla dogal fa tabaarakallaa léegi nag ñu féete Dakar nekk ca daara ya waaye xam na ni léegi yu ci bari yaa ko yore tabaarakallaa kon ñu ngi lay ñaanal baax yan bi yan na ko yàlla woyofal te yàlla dëgëral ko ci daraja yent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp genn kàdd rek lañ bëgg a déglu muy kàddu xalifa bi ah allahuma amin muy kàddu sëriñ bi ndax kenn ku nekk boo demee am loo yóbbaale imaam xalifa kon تبارك الله ني بيسلات رك ني كون باتاي رك ييغي اندك سين راديو تيليفزيون سفينا تي في تبارك الله نيو جيلسي لو مبولم لو خامتيني خيو تي بير جوتاي بي غير مبوك ييب ادني ييب مان كو سيتان مان ان شاء الله تعالى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نينا لولا امنا كو كاي وليس على الدين المهيمن نائحه waaye diine yàlla ji kenn jooyalu ko ñëpp a ngi tëdd di nelaw bàyyi ñekk ci mbedd mi di nébalancé ko def lu ñu xam mu mel ni tey kii toog di imaam xalifa rindi na seytaane ci kartanu yàlla bis bu ko gën a rëy doomu tund moo aaye waaye bokk ko ak doomi tund amul xajji amul seet tey gànte bi ku fi nekk témoin nga histoire la su ma xamee dara ci arab ba taxaw di ko wax yàlla ak jëmm ji moo tax ak ñiy toog ci tànt bi képp ku nekk ci école di jàngale ci gox bi yépp imam xalifa mii moo la jàngal arab moo xam ndiireen la moo xam seen kan la moo xam ngaa xam la moo xam ndaqaar la ba tawa ba ndumbil ci jamono bu metti mu fekk mag ñi nga xam ne ñoo nekkan ci dëkk bi sos dëkk bi ci alquran mën nañ koo commencé ci góor gu ñuy wax njafali cuun nga xam ni moo sanc fii mu sanc ko ci alquran sanc ko ci sunna sanc ko ci sharia waaye sanc ko ci xaqiqa man ñi taxaw taal jàng alquran ci dëkk bi bokkan nañ ci ñu nu gën a xam Maam Mor Biraan mi nga xam ni tey bis bi moom la tànn dara jaale ko ko muy maam Mor Birane Thioune yor na dëkk bi moom ko jàngale sunna jàngale alquran jàngale fiq ba sos fi imam sos fi lépp moo fi jëkk a samp daara moo fi jëkk a samp jàkka te bant si daan la ko jëkk a sampe wërale loola di mag ba gittax am mu sàkket ko moom mar bor maam Mor ñuy dem ba jëmmi jamono fii ci ngaay tubaab bi na fi ñu koy wax katala am ay xotti bëri mu jënd ko ñëw dagg ko daaj ko barak jàkk ja ji dund commencé ci banti salaan jaar ci ay sàkket ba ñëw ci barak jumaa jey dund ñu koy topp di ko topp ba ñu tabax ko ñuy demaat ba yàgg ñu toj ko tabax ko lii ngeen fi romb nga xam ni fii ci raison bi jumaa joo xam ne mel na ni ju tund ci amul plan ki ko tabax jëmm la joo xam ni doomi maar moon biraan la amul plan fu nekk nit jóge na ci international ñëw fi ñi dama bëgg ñu jox ko plan bi mu defar ko mu leen jumaa ji amul plan kan moo def loolu mooy doomi maam moon biraan ñu koy wax alaaji ngañ cuun nga xam ni jàkka jooyatu ko jumaa jooyatu ko école jooyatu ko faqir jooyatu ko miskin jooyatu ko te lii may wax yéen ñii toog ñëpp xam nañu ko dëkk yi wër ñëpp xam nañu ko ñu tudde baayam ji daara ji dëkk bépp bokk ko imaam xalifa tey ëppalewul kenn ku tax ci jataay bi te dañu wax ni kóllëre mi ngi commencé ci ki la daara ñuy dem ba yàgg mu moderniser ko en 1996 fekk mag ñi jàngale daara boo demee su 96 mu fondement daara ji mu fekk daara ji maam Mor Birane samp daara alxuraan këram di jàngal njabootam maam Modou Thioune di papay Taala Thioune mi ay njabootam samp daara këram maam Ngagne Thioune imam samp daara di jàngal ay njabootam ba formé ci imam maam Mafal Thioune ca Daaru di maami Njaw Thioune mi di góor jigéen ju joo ni danañ ñëw ca kanam mu sampo daara këram bay jiite fal ca ciise ñu sampal ko daara buubu sàll mii ñu sampal ko daara bàyyi àll koddu mbay di papay góore ja mais daaraam janga nee mu sampal ko daara këram kër maam du Ndemba daara baayam Baye Sidi Diop samp daara tund kër gu nekk ñu samp fa daaray alquran tund lii mooy bi nga demee ba jëmmi jamono ci jamono bu métti association ak jamayatul islamiyya saqaafil bi mu ñëwee mu dem ba fexey ba am ko Abdoulaye Cissé Al Amine ñëw fii inauguré ko ko 1996 1996 ba nos jours moom mi moo modernisé alquran jooju def ko daara arab tey ñëpp jàng arab ci gox ci gox bi kan moo def loolu imam xalifa mi képp koo xam ne tey ci dig bi dégg nga arab wala nga nekk nga fi imam di ndaw wala ngay jàngale école taxawaayam moom la ba tey gis ngeen fii ni mu ko def pareegul mi ngi ci liggéey bi ba léegi boo ko ci fekkee mi ngi ci boo ci fekkul mi ngi ci tey nag man leen tey bés bu rëy la ci tund kooku moo woote tey ñu bëgg wax ni rek am gan gu muy teeru nag muy gan gu rëy ci lislaam muy seetu Cheikh Seydil Hadji Malick muy Sidi Ahmed si moom lañ fiy xaar tey imam Khalifa la ca gën a kawe ci on niveau moom moo koy àggale dañu la bëgg a wax rek délégation yi fi ñëw bari na te waxtu wi dafa xat te am na ñoo xam ni toujours ñu ngi ci pressé ñu ngi ci liggéey ñu bëgg leen a wax rek li fi jot a ñëw ci délégation ñanu ciy jiital di ko sant mooy chef de village njabootam yëpp a ngi nii toog bàyyiwul kenn nee leen dem leen ngeen fees place ba nanga ne toog nee na leneen la ca des yéen waa tund teew ngeen yéen a ngi nii toog jërul may jaar ci kenn ku nekk aw turam su ma nee waa tund ñëpp teew na waye dañu wax ni amna ay gan yo xamni dafa jar ñu tuddu len seen teewaay ndax kenn fogu len fi won ndax jamono mo ag fo xamni yegal nañ ñu ni ak mbokk lu mu reer reer jamono dina ñew yalla feñal ko amna na ay mbokk yo xamanteni ñu ngi joge ba njar tiijaan ta la feñal lola suñu rak ak li nga xam ni moom lañu ñu bokk ñun ñëpp te mu xew ci jamono muy groupe whatsapp nga xam ni ña ko jiite mbay cun mii ay ñoom majaañ ay ñoom njaw cun suñu mag ñoom ñoo ko géré ñoom ñëpp ci lañ fexe ba dajale famille bi ci loolu ba nga xamante ne tey lu xew tund ñooy fees tant ba fa tabarakallahu yal na yàlla gën a barkeel ah li ñu mën a wax nag alhaaji ngañ cuun mi ñuy tuddee bis bi baayam munek nekk fi représenté ci bayam ak ay rakam ak magam ñoom ñëpp seen njabot teew bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi khassana bi a'dam kitabin unzil sharafana bi akram rasulin bu'ith faddalana bi xayri shari'atin shuri'at وجعلنا بمنه وفضله وكرمه من خير أمة أخرجا للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام أزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله النذير المبين السراج المنير الهادي إلى صراط الله المستحيم حبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk soppe yi suñu mam yi suñu yaay yi rak yaak mag ñi wa dekk bi yépp ñong leen nuyu nuyo bu ñu yàlla boole nuyo bu wa ajana di nuyu seen borom bis ba dajé ak mom té moy ni yàlla na ak xéewal yërmande barkeem nek ci yeen ba fasfa fa ginaaw ginnaaw loolu dañuy am mbégte lool taxaw fi jël kaddu di am mbégte lool si bis bii kuñ ko tuddee xam naa ni nag lottu nañ si jël kàddu tuuti nañ tamit si jël kàddu waaye dafa fekk ni rek lu nekk bu yëngatoo rek la ko yëngal moom moo ko ëpp doole mooy ni ndigal jëfewul maanaam santul lenn lu dul jëfe moo tax daanaka ñu daal di jël kàddu gi ndaxte am na ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ne ñoo waroon a jël kàddu gi waaye bu la xasee ba jox ndigal munoo lenn lu dul jël rekk loolu nag mag ñi dañ si daan joxe exemple ñu ni bis danoo war a yëkkati benn néegu ñax jëlee ko fii yóbbu ko fële am ku ni am na lu nekk ci kaw de diis te loolu buñ ko wàccee de dana yomba yóbbu waa ji ni ko yéegal nga daat koy wàcce ba mu yéegee di ko wàcce muni talibé yi jégal leen ko ak mom ngeen yóbbu loolu day wone ni kon ndigal mom bu ñëwé jëfé rek waxtaanee mag ñi nak amna solo lol waye la ko solo moy ni lan mo tax ñuy waxtaanee mag ñi moy ni bu ñu waxtaanee mag ñi ba paré yan jariñ lan lañ si mëna a lolu nak ñun ñëpp xam nañ tontu bi té moy ni bu ñu waxtaanee mag ñi ba pare danañu xam lan la mag ñi daan jikkowoo ñu jéem a sol mbum moomu jikkowoo ko lan la mag ñi daan jëlee doole ñu jël doole jooju def ko suñu bopp lan la mag ñi daan làqatoo nga xam ni loolu moom moo doonoon seen sirr ñu jël ko def ko suñu sirr ñetti yi yëpp nag ñu wax mënuñu kaa fekk fenn lu dul lu gën si ñun lu dul loo xam ni yàlla moo ñu ko jox te moom mooy alquranul karim téere boobu nga xam ni tey jii dañuy wax ni si àdduna bi képp ku dem hôpital buñ la joxee fooy soo demee ba jël fooy bi bala ngaa utiliser garab guñ la jox faw nga liir fooy bi lum lay wax nga daat si yi mun a aw maanaam fooy bi moom moo lay dicté nit ki noonu buñ la jaayoon portable bal nga kaa utiliser faw nga xool fooy bi yàlla nag daf laa indi si àdduna jox la loo xam ni daanaka ay fooy la nii la soo fi buggee dund dund gu neex jëlal fooy yii nga daat koy jàng te moom mooy alquran ni képp koo xam ni jàng na ko maanaam du musa sànku ba yowmal xiyaamati maa anzalna alayka alqur'ana li tashqa wàcce wuñ alqur'an ngir ñu daal di texee di loolu nag dañ siy jël ay yi ñuy bëgg a jàng suñ ko jàngee leeral mag ñi nan lañ ko daan dundee nga xam ni ñetti mbir la yoo xam ni moom moo nekkoon seen doole moom moo nekkoon seen wéeruwaay moom moo nekkoon loo xam ni daanaka ku leen gis ñee leen baada auzu billahi min alsheytani rajim ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويديدهم من فضله إنه غفور شكور هذه الآيات أي لمن يدان جفنكو يلا لن لوخ إن الذين يتلون كتاب الله إن خامني دانيي جانغ تيري يالا بي لولو موي ني ماغ ني داندان وخني كيب كو خي ام سي تيري يالا بي اب جوكي xamal ni yow texe nga ba bis bi di jeex amul lenn lu la mun a lor jàng googu nag dafa am ñaari façon jàngin jàng gi nga xam ni danga nga koy tiim ak jàng gi nga xam ni soo paree la aaya doon wax moom ngay dem daat koy jëfe ji su ko defee danga nga mun a am teddaange loolu nag mag ñi daan si yare si ñett yi mooy ni dandoon yittewoo yaram bi jox ko mu lekk solal ko jox ko mu daal di naan waaye bu fekkee ni xool am na leneen lu koy dundal lu bokk lak lekk te moom mooy ni alxuraan bi ñu koy jàng di tudd yàlla fépp fu ñu mën a nekk loolu nag dañ si wax ni xool daanaka moom mooy lépp kii di luqmaan bun hakim danoo ñëwoon buuram moo ñëw ni ko dama bëgg nga daan may indil lu gën a rëy si xar mi boo ko reyee mu rey ko pare indil ko xool bi ak làmmañ bi mu bàyyiwaat ba dippi jamono mu ni ko indil ma lu gën a yées si xar mi mu rey ko indil ko la mu ko indiloon mooy xol bi ak làmmañ bi mu ni ko yow yaa may jaaxal de dama laa laaj lu gën a baax nga indil ma xol bi ak làmmañ bi ma laaj la lu gën a bon nga indil ma xol bi ak làmmañ bi mu ni ko lii de su baaxee moom mooy lu gën a baax si nit ki waaye su bonee moom mooy lu gën a bon si nit ki ala innaha hiya al jasad ida saluhat saluha al jasadu kull وإذا فسدت فسد الجسد الكل ألا وهي القلب كتاب الله وأقام الصلاة بنا بسي توب صح مويني نتيل بي خل خل نك لك من دون دل مويني جانغ تيري يالا بي لول نك مويني خل خمول فن فدول دار كون نيو نيوب ورنو نيو غور غول با اندي سيني دوم دامي فاتلي كو باخ أبا ما دار xaw ma woon luy téere xaw woon lenn waaye bàyyi xalifa moo ñëw indil ma téere boo xam ne juz u amma la lu ma si mën a xàmmee tey jii nii xaw la ay doon wax waaye gis naa ni xonk na am na loo xam ni moom mooy lu bula lu si nekk mooy téere juz u amma yooyu ba mu ko jëlee yóbbu ko daara ja fa jaaree réer ba tey jii nii damay réccu ni la moo tax téere boobu réer lu tax ndaxte souvenir la si man lo xamni danaka xawma xaw ma si woon dara waaye mom mënoon dimbali mu melni lolu mom moy nuqtatul intilaq sama point de départ pour ma dadi di am xam-xam kon lolu dañ ko siy sant di ñaan tamit ñëpp ñu daat koy indil xale yi ndaxte buñ fi jaaree danañ mën a doon ñu bax wa qamus salat taxawal julli magni ak luñu musana musaana jàpp jàpp jàpp jàpp jàpp dandaan taxawal julli même bu ñu feebaree feebar dem ba nga xam ni sax mënatuñoo jàpp danañ jéem a jàpp taxawal ko loolu moom daawu leen tereg lool ñu siy joxe exemple xurwatu bun zubayr sahabiyun jalil xare si xare yi dañ kaa gaañ si tànk bañ ko gaañee si tànk mu dem ba ay dippi jamono tànk bi tàmbali mel ni loo xam ni dafay yàqu si loolu kaka doon faj ni ko faw ñu daal di dagg tànk bi ñu ni ko nag waaye pour ñu dagg ko faw nga daal di naan loo xam ni mooy yóbbu sa xel ndaxte lii mun ñu kaa dagg noonu rek mu leen la mooy si pexe mu ni nga naan sàngara wala loo xam ni daanaka dana yóbbu sa xel mu ni maanaam yàlla tere may naan loo xam ni daanaka day yóbbu sama xel ba mun a tax ma daat si amee wér-gi-yaram mu ni waaye de dinaa leen jox tettal ni saa yu may julli su ma xasee ba kàbbar ba tàmbalee jàng fatiha du ma yëgati daara ñëw leen si heure boobu ngeen dagg li nga xam ni moom moo nekk si man nga xam ni moom lañu ñu war a dagg bañ ko defee bàyyi ko ba muy julli ñu ñëw def loolu naka ñu dagg tànk bi rek mu jaaree fa xëm ba lu yàgg mu daal di xémbaliku ba mu yewwoo si xam gi ñu ni koo de wax ko lu gën a rëy tànk bi nga xam ni moom lañ dagg ñu ni ko sa bi nga xam ni moom moo doonoon caat si sa sëtu doom yi te nga xam ni ñeent lañu woon fas bi de wéq na ko mu jaaree fa daal di dem alaxira mu ne alhamdulillahi ala ma aatayt walhamdulillahi ala ma abqayt ñu ne ko waa yow naka ngay sante yàlla mu ni ndaxte damaa yoroon ñeent si ay tànk ak maanaam ñaari loxoog ñaari tànk yàlla jël benn bi ma yoroon ñeent si ay sët yàlla jël benn bi kon maa ngi sant yàlla si li nga xam ni moom la ma deseel maa ngi sant yàlla si li nga xam ni moom la ma jox kon ñooñu foofu lañu toll woon si iman ñun tamit loolu lañu war a jël wa anfaqu mimma razaqnaahum anfaqu mimma razaqnaahum mooy nii di financé salala yàlla yàlla wërsëgalee loolu nag mun naa doon xaalis mun naa doon doole mun naa doon lu mu munti doon tey dëkk bi fii nii luñ fiy liggéey rek yaakaar naa doomi dëkk bi ku si nekk war na see participer ku si nekk sa xel la mu gën a màcc rek yow yaa ko war a def su ko defee loolu moom mooy wane ni wa anfiqu mimma razaqnaahum bu fekkee ne dañoo bëgg tabax am ñu ñëw daat koy def joxe am ñu ñëw daat koy def leneen ak leneen ak leneen noonu joxe nag dañ siy joxe misaal dafa am benn buur bu nekk si néegam ak paleem mu ni man de damay yëg mettit sama xol ndaxte maa ngi am lu dul jeex waaye ànd loolu lépp mënumaa am jàmm xaar ma génn doxantu amaane si àll bi dinaa gis loo xam ni moo may may jàmm mu génn si àll bi di dox de faak benn baykat baykat baa ngi kontaan ànd ak cawarte ànd ak pas-pas sa la nga xam ni moom lay def mu ni waa kii nii moo ma gën a doyee di te moom mbégte bii mu am man ooma ko xaar dem laaj ko lan moo tax mu ñëw ba jege ko ni ko ndax tool bi ngay bay yow yaa ko moom mu ni ko déedéet tool bi de moom ko man de nekkuma fi lu dul suruga dañ may fay par bis mu ni ko ñaata lan lay fay par bis mu ni luñ may fay bis mooy ñeenti téeméer mu ni ko ñeenti téeméer mu ko waaw mu ni ko est-ce que loolu mat na la nga daat si yu mën a dundal sa njaboot mu ni mat na ma ma dundal si sama njaboot ba faj si samay aajo si ñeenti téeméer yooyu mu ni ko yaa ngi may bëgg a jaaxal de wax ma kon naka lay demee mu ni téeméer bi moom lay lekk beneen téeméer bi dama koy leble beneen téeméer bi daa am feneen fu ma koy dugal beneen téeméer bi ma joxe ko fi sabilillah ñeenti téeméeri jeex mu ni ko ah li nga wax de dégguma ko comme cax si man mu ni ko ma firil la ko ni benn téeméer bi dama koy lekk man sama soxna ak samay doom mom lañuy dundé benen témèr bi samay wajur la kay fayé ndax té ñom bañu ña ba nga ñaké doolé ñom ñoma daan dimbali di ma jox jox ma sax seen doolé ba tay ji ni nga xamni man ma jéxal seen doolé kon man ma leen wara fay mu ko waw lool de dëgg la mu ko benen bi nak mu ko benen bi dama si préparer sama doom yi di jang ëlëk ñu mëna a tollé fi nga xamni fi la tollu wala sama papa yi fañu tollon ñu mëna financer lu mel nonu seeni dom muniko benen bi nak muniko dama kay joxe ko xamni danaka mom mo febar wala ko xamni ñewna di ma di wala ko xamni danaka bo boo sey say rek nga gis ni ki dafa soxla waye munta la yasaluna an-nasa ilhafa amna ci ay nit muni ni lay dundé sama xaliss ñett yëpp ñu wax mom la mam yi daan dundé mooy ni jàng téere yàlla bi saa yu ñu xëyee ak lu ñu jàpp jàpp jàpp jàpp danañ si am jukki julli ak lu leen munti dal tamit mënuñoo bàyyi julli joxe tamit ak lu ñu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk tamit dañuy joxe tijaratan lan tabuur lii lépp soo ko defee mooy ni am nga commerce boo xam ni du mus jeex si àdduna ba keroog yowmal xiyaama te yàlla nag daf la see tegal ni li yuwaffiyahum ujurahum maanaam dama leen i dollil jox leen seeni payoor fay leen ko ba mat sëkk wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur ndaxte moom mooy boroom jégale te moom mooy ki nga xam ni war nañ kaa sant kon lii lépp bu dajoo dañuy wax ni bu fekkee ni bëgg nañoo delluwaat sa mag ña nan daan dundee ñaari rek la mën a doon mooy ni fexe ba tënku si ñett yi ñu wax fexe tamit ba chaque jour ñuy tudd yàlla te ba sa gën a rëy mooy astaghfirullah ndaxte ayaa ñëw di ñu ko waxal walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard bu fekkee ni ñoo ngi ragal yàlla rek yàlla dana leen xéewaleel ubbil leen bunti asamaan taw bu barkeel ñu mun kaa am beneen ba mooy ni wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana gaffara la moo sa topp yursili sama aleykum midraara kon al istixfar moom mooy indi xéewal moom mooy indi lépp loolu nag buñ koy xool dañ koy gis si Japon diiran bi nga xam ni daanaka moom mooy en 1963 Corée du Sud Sénégal dimbali na ko si ay financement mais après 40 ans danoo gis ni Sénégal moom mooy dem si moom di uti ay financement la moo ko waral mooy ni bàyyi li nga xam ni moom mooy xaanuunul kawn luwaa gi nga xam ni moom moo nekk si kaw boo ko xasee def rek égal moom la lay jox xéewal te moom mooy al istigfaar yursili sama aleykum midraara ñoo ngi jégalu kàddu yi bu baax a baax a baax a baax lépp lu si dëng ñu xam ni si ku ñàkk solo ci mu doon wax la lépp loo xam ni moom moo si jub ñu xam ni si kàttanu borom bi la wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu aleykum mbokki julli yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara di jiital nuyoo bi ci sunu sëriñ Seydi Ahmad si di ko siyaara ci turu dëkk bi di ko jox wàccukaayam di nuyu mbokkam yi mu dendal di sëriñu abdu Samad Mbàkke deko ko jox kayam ak mbokam mi mu andal di Seyxuna job ak ñi nga xamni ño and ak mom ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jam di leen wax ni ñew ngeen ci seen kër te mooy këru daara eh, fatubaarkàlla nuyo bi nuyo nu yekati ko ci turu chef de village sunu chef de village Eh, sëriñ ibrahima cuun mo yore dëkk bii nu nekk di tund cuun ak ci turu imam góora cuun yàlla dogal ci wàllu imam gi suma fi nekkul moo fiy nekk e di nuyoot ci turu kii nga xam ne tey moo fi des ci njobootu kii ñu tudde bis bi di sunu maam moor biraan cuun ki des ci njooba njobootam di alxaaji ngañ cuun ci seen tur lañu yëkkatee nuyoo di nuyu sëriñ bi ak gan ñu tedd ñi fi teew di leen dalal jàmm yàlla dogal na daja tey bi sëriñ bi dañoo dëkk bii di nga ñu koy dàkkantal tund cuun kii nga fekk mu yor kàddu gi di wax sunu rakk la sunu doom la sunu jarbaat la ñu naa ko sàdda cuun yàlla dogal na ci ñi jàng ci daara ji ci la bokk góor gi ñu tuddee bis ci ay sëtam la bokk moo tax nu jox ko kàddu gi ne ko lu nu fi war a wax rekk wax ko fi ci sunu tur kon li ma doon wax yépp ci sunu tur la ko wax dafa am góor gu sanceen dëkk bi ñu naa ko góor gi mo sanc ko sax waaye góor gu fi yàlla joxoon cër mu am fi may ñu naa ko Serigne Mor Birane tey nag nu tudde ko bis bi bi ñu ko ko tuddee nag am na njaboot gu nekk ci tudd tu dëkk bi e, e, tudde seen bopp Thiounène famille nga xam ne ñoo boole askan wi ŋànk ko e, du guddi na du leen lim ka nekk ca bopp ba rek ñu def ko président ba mooy sëriñ Madiagne Thioune waaye ci seen tur ci laa yëkkatee kàddu ci tur kii ñu tudde bis bi di la siyaara di la nuyu di nuyu gan ñi fi teew ñépp fekk nga léegi imaam bu fi jóge ñu naa ko imaam Aliou Thioune euh, moo bokk ci kilifa yi nga xam ne fi ne des nañu fi ŋànk famille bi et su ko defee fatubarkale bis bi moo tax tey bis bu rëy la ci noonu di bisu tund kii doon nuyoo léegi nag di wax mooy imaam Abdoulaye Ndiaye euh, Safina TV bii mu doon wax ci kilifa yi fa nekk yore waxtaanu diine ba ca la ko yàlla boole ci sobabam itam ci la rajo bii dikke ndax ci sobabam ci laa xame rajo bi ba tax ñu tey ñu dikk tey di taatan lu ñu fi jël waaye fekk loolu lépp ci kii ñu tudde bis bi sëtam ba yox daawuda coon moonu boole ak moom ba tax loolu lépp yaatu fa la euh, tey bis bi di bis bu rëy ci noonu tey su ko fee tund gépp teew na su ma tuddee ñooñu rekk dootuma tudd di lim kenn ndax ñii fi teew yépp njoboote daara ji lañu ci daara ji lañu jànge ci daara ji lañu nekk ba xam li ñu xam xanaa sëriñ euh, su ko fee rek fa tubaarkàlla bala may sori sëriñ Mor Khoudia Diagne jiite fédération ngaay moo teew si léegi noonu dugg ci kaw euh, ñii kii ñu tudd bis bi nag yàlla dogal na njobootam comme ni ko sàdd waxe léegi ñu ngi fi taawam moo doon Ibrahima ci gën a siiw ci Baay Sikkim mboolem njobootam daanaka wax góor ak jigéen ñépp teew nañu ndax Serigne Mor Birane ma cay mag daa nekk àll waaye Dawda Cuun mii la yebal mu ànd ak famille ba yépp teew ci kenn desul ka ca toppan di góor a cu nekk ngaay mboolem lu mu joboote ñëpp teew na alxaaji ngañ cuun maam lay mii moo ànd ay ak tàntam teewal ay magam ak i rakkam ñoom ñëpp parsante leen fi àndande jarbaatu alaaji Ngancun ñu naa ko Serigne Cheikh Mbaye Serigne Cheikh Mbaye ànd ak ñi mu andal ñëw teewe ci bis bi ci turu alxaaji Ngancun alxaaji Ngancun yebal leen kon ñi moom bis bi ñëpp teew nañu kenn desul e su ko fee nag sëriñ bi tey fii nga ñëw muy daara jo ham ne na lool sa waajur sëriñ Abdoulaye Sissi ñëwoon na fi 1978 yoon woo xam ne wunu xumbe dootul yomb ci kaw suuf daara jiitam ci daara yi mu méngoolan boppam yilifan ko boppam mu ci la bokk boo gisee Serigne Samba Diagne wax naa la li tax nu ànd nag moom ci sa turu waajur la sëriñ Samba moom mu téewul tey waaye imaam yangu ba fay ma nga jóge ba waalo ci turu sëñ Samba Diagne jóge ca euh, waalo sa sëñ Samba yebal ko oustaz Assane Diagne ñu teewal fi seen sàmba ci bis bi teewal fi waa Waalo gépp kon fatuwaar kal la kon ñëpp ñëw nañu kenn desul euh, daara ji tey nga xam ni nee naa la sa daara yu jur la euh, tey jii lii fi teewan wax naa leen ni yàlla lu toll nii ci boroomi xam-xam daana mën naa la wax ni li fi teewan tey ci ay imam Euh, bu ñu la ko tuddal yaakaar na yombul jitaay bu toll noonu imaam yi toll noonu teew fi yàlla dogal rek ci ngoon lañu dem waaye loo xam ne jigéen a juróom fukki imaam teew ci benn palaas yaakaar naa yi loolu yómbul kon yal na yàlla def ñu ñu ñu jariñoo ko e, sëriñ Mouhamadou Fall ca Paal ku nekk xam ni mu toll ci Tiwaawoon yàlla dogal na mooy sunu doom doomu ndijaay nu séq lépp ci mbokk euh, yàlla dogal na màgge nga tax na mënula teew waaye yebal na rakkam sëriñ Mansoor Fall mu teewal ko fi ci tuuru njoboot ga yépp mu ngi nii toog ngay jàngalekat ya fa ne yépp teew nañu ak turlu wi euh, léegi saddaa ngi wax imaam Khalifa Diop male mu bokk ca ña fa nekk di tasaare xam-xam yàlla dogal na teew na ak ñi fi ne su ko fekkoon fatuwaar kàlla sëriñ bi e, bis bi bis bu rëy la ci noonu sunu mbokk yi nu am ñu bari teew nañu fi e, dinaa wax ni am nañu sunu wóllëre bu ñu wax alxaaji As Jaañ ca yi Euh, ñëw na ba indi participation jox na ko ngir yàlla ak jàppandiku ci bis bi léegi la rakkam jeex Moodu Soob ñoo bokk ndey di rakkam léegi la agsi moom itam ngir yàlla ak bis bi ak jàppale nu ci am na euh, ci ñu nekk ci tund wi di yëngutu ku ñuy wax Baara Ngom yàlla dogal na yebal dafa délégation bu am solo ci bëccëg magam euh, Ngóoda Ngom mu ànd ak imaamu dëkk ba imaam Moustapha Sarr ñëw ci turam andi seen participation ak seen ndimbal ci bis bi loolu nag tuutiwul ci noonu yal na yàlla su yokk seen sutura e tund wi daal mën naa la wax ni kenn desul ndax waxtu wee ko mayeetul e, oustaz Ngouda Sarr mii nekk ci kaw jàngale na ci daara ji mat juróomi at yoo xam ni taqoo na kook noonu li ëpp ci gone yëpp moo leen yee aman nañu sunu mbokk moo xam ne daawoo dégg ci taay ñu ngi la koy eh, tàgge di imam Fallou Ndoye ca mexe yi noo daa bokk yëngutuy diina jépp yàlla dogal na tey jii ma nga ca barsàq waaye kayore yore daara ja di Ahmad Ndoye di doomam ànd naag délégation bu am solo ci mexe yi taala joom ñoom ñépp kenn desul ak jigéen ña ñoom ñépp ñu ñëw ca turu daara ja turu sëriñ fàllu ngir teewe ci bis bi kon loolu tuutiwul dëkk yi ñi góor gi sëtoo ñépp bu dee mbëri gi mu doon wax moori moom ci sëti góor gi la ngaay ndiiréen mexay ndóoyéen ndaxaar ngaa xam pëleen benn dëkk di disul gis nañu ñépp waxtu wee ko méyatul mexay cokke cokke moom day wax de daanaka kenn desul ñëpp ñëw nañu kon loolu dañ la koy par santé pour nga xam ni bisi bi tey kenn desul waa dakaar yi di njobootu Baay Sikkim gi njobootu Ngañ ngo Alaaji Ngañ ñëpp ak soppe ya oustaz Pape Diop nekk ak ñoom ànd ak Jibril Ngom male ñoom ñëpp ñoo ànd ak ñoom def délégation jóge Dakar ñëw kon loolu kenn desul famille famille bi ma wax kii ma jàkkaarloo di mbay coon ci ñi nga xam ne rek gën ca ami taxawaay di taqale diggante bi ci la ko yàlla boole moom bu fi teewee président teew fi coordinateur bi kenn desul jigéen ñi kenn desul ñoom ñëpp tey ñu ngi ci jitaay bi ngir yàlla yaakaar naa bu ñëw yi gën na teel di nga jaaxle li fi nekkan ci mbooloo waaye ñu ngi la koy présenté di la xamal ne fii nga ñëw tey sa waajur a ko moom daara ji nag moo nekk nii eh, def naa fii procès boo xam ne jege na deux deux hectares sax ci daara ji ay garab rek na fee ne ak i mango ki lingom miire naa ko ba mu egg ngir yàlla ak daara jee ko moom ginnaaw procès boobu lu mat trois hectares a ngi fii yoo xam ne daa leen lépp sédde naa ko daara ji ngir nga jàpp leenu ci mu dem daara joo xam ne waxuma ay kii waaye mu dem ba doon université laa yéene incha allah soo demaan ba gis procès bi dugg ci biir moo taxam ma bëgg nga teel a ñëw vérifier ko di nga xam ne nu ngi yëngatu te loolu lépp daara ji lañ ko séddee kon loo rek lañ la doon présenté di la yëgal ne daal bis bi tey jii eh, sa bis la daara ji sa waajuralu amul lu dul moom ba mu no may tariixa seex passé wu nu fukki at ak juróom benn musuma def lu ma def lu dul nu ca may ndigal tey jii li ma xam nu jaar ko mu won ma ko ci ay kéemaan soo ma ko doon nettali eh, nit ñi ni ma déedéet kon nag nun amuñu lu dul moom kon noo ngi fop nuyoo xadara ba di ko jaarale ci yow ba ci xalifa ba sëriñ Babacar Mansour ñoom ñëpp nga siyaaral nu leen te nuyul nu leen te eh, jotal nu sunu kàddu ci xadara ba tey li sëriñ bi wax ni waa euh, euh, maam borom Touba teew na alaaji Malick teew na soo teewee sëriñ Abdou Samad mii teew kon sunu xal del na maam alaaji Malick teew na maam borom Touba teew na daara jii nag daara la joo xam ne yiwu yàlla rek lañ fi yaakaar ndax ñi ñii ma tudd seen njaboot rek laa siqal ci daara ji ñi ëpp ci ñi ma jàppale ci daara ji di ma taxawale ci daara ji njabootu maam borom Touba lañu boobu ma loo xam li ci xew ci kéemaan yu am sax da nga naa déedéet kon nag yéeg naa Serigne Dame Sylla ñoom ñëpp ñun ma ñu ngi ci yoon wi ñëw te ñoom ñëpp ay kilifa lañu ci njobatu maam borom Touba gi te ñoom ñëpp ñu ngi ci yoon wi ñëw te ñoom ñëpp kat ñoo xaar seen tànku tubéy ci ànd ak man ci daara jii loolu rek lañuy aman ci kàddu yi ñuy wax doon la pare santé daal ni la tey tund wi kenn desul loolu rek dañu aman ci kàddu yi ñu doon wax mboolem nag ñi ñu war a tudd ku ñu tudd nga baal nu àq te xam ni rek bis bi moo xat te bët day fattu tey bu doon lu ñuy séddale du nu jox kenn di bàyyi kenn hmm? boo demee ngaay sunu chef de village Maapaata Diop ànd nag kii loxoom di jaaja Diop ak sama doomu di jaay Maodo Fall ñoom ñëpp ànd nañu jóge ngaay fekk si jitaay bi ànd ak nun ci liggéey bi kenn desul ca ngaay kon nag loolu rek ñu leeral la ko ngaay moom manax ni kenn desu jigéen ñii nag nga xam ne ñoo yoroon coono bi di soxna sun yi nu yoroo sunu bopp yore daara ja ca ngaay ak daara ji ci tund ak jigéen ñi ci tund ak ña ca ngaay tey jii ñoom ñépp a takku kenn ku nekk boole joxe sa ñaq joxe sa alal joxe sa doole ngir biir bis bi jag nga ñaanalal nu leen yàlla yàlla barkeel seen njobot yokk seen sutura ubbi seen bunti xéwal faj seeni aajo kontaan nañu ci ñoom bég nañu ci ñoom tey mbégte mi ma am mënuma ko wax wóor na ma ni xawma lu may sikk sàkk waaye ko fi teew tey bul sikk sàkk fajug aajo ci bark jëm ñaari jëm yi fi teew ooma ci sikk sàkk yéen ñëpp na seen xel dal seen aajo dina faju den leen ñaanal ñaan gi neen nungu wax leen allahuma yal na yàlla faj seen aajo wasalaamaaleykum eh, sa mbok bi nag sëñ Abdou Samad ne daa bëgg na jël kàddu rek nu yoon teeg yow xam naa nga ñaanal ko ndox borom yi itte la rek ñu may ko mu ci ko ndànk dem su ko defee nit ñi ngeen dellu si toog sëriñ bi wax noonu li muy wax ak noonu su ko rek loolu la ñu amal ci kàddu yi ñu doon wax sëriñ Abdou Samad kon nag nga jooxee kàddu rek. أعوذ بالله من ميلي لغير الردى ومن سنودي عما سن أو فردا الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفرود وسنن ثم الصلاة والسلام الشرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن ربيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu tàmbali nuyu bi sama mbokk mii sama mbokkum deret ndax mbokkum deret weesuwut ki ni meññi bu amutoon maam bu kenn du ci am mi mi maaram muy Muhammadu mu aram ñëng naan ko maaram su amutoon moom mi du am man mi du ma am damay faral di wax na ab yóbbante bu jóge woon Tiwaawoon mm-hmm. naan boo leen demee yóbbuñ la ko ngaay نفقنا جيجا مام مام mam maam maam alxaaji malik si radiallahu anhu mhm. wa nafana allahu bi barakaatihi wa ilmihi joxal leen ma ko dama mhm. naan suñ suñ muxtaar mbàkke lañ ko jox suñ ko fekkoon moom mii lañ koy jox mhm. bu léegi yi ñu séddale ñaara maa ngi moo koy jël ba ko kon kon noonu la demee te gi ma len ñu ko sa lu ñu fa doyo bu rafetal àgg mhm. àgg nañ fa maa ngi ñaan nag bi xormati seyxina mhm. lu lu nit lu baax di am rek ci àdduna ak alaxira yàlla nañ ko am ndax suñu xalifa joom yi nga fekk si tey mhm. suñu wëllëri la suñu xarit la suñu soppeel te ku ñu yëg la ndax suñu Sidi Mouhamed képp ku naan sama téerum dëkk dong lay naane mhm. fexeel ba bul guddub tànk de ah bu guddub tànk xaw a gaañ de dinaa mhm. ñun mhm. ñoo tënk ci tawxiidul ashar yi fiqul imaamul maliki tasafu imaamu junayd kon ke ko bokk lépp لغاية كتبوا هنا إني بحمد الله أشهري حقيقة والفق هناك مالكي وأنك طريقة الخديم سنة جلقهم طريقتي وأنك طريقة التجار سنة جلقهم طريقتكم كنوا الله إذن يسمو دفال أقوى سمو الخجر وانقاي جان مولم كفنك دتال جبورك مام مودا نيلي سيل سوني أندل ورفت mas ya, iya, mhm, mhm. oh, ya na la ko wax bu bang fi mas ñoom na la ñi de man de gisuma len ku leen ma gënal gisuguma ko na la ko nga fa ñoom bi ngay tek institut ñoom suñu usine Fall ba ba waxoon la ko ba fàtte nga ko na waaw kon kon dama lay xamane li ñoom and gin and ñu de deug iya, nekkun and dajee ci baas tagante mhm. wër ci néeg daal di jëwënte ñun ñu noonu dañu andu andu deug ay julit yu and andu andu lo lañ and ma te si nga eh, lii imam xalifa def nii mhm. dañ ko càppale baax a baax mhm. seen nga ay vidd ku ko remplir am ñu ko remplir te ñaare ba léegi ñi ngi doog a xam ñun sunu ànd ñeneen ñi ngi koy doog a mhm. ba ba am mbooloo jigéen nana mabbu ay mabbu suñuy pas-pas xanaa la ñu xam ñu bokkoon li ñu bëgg léegi xanaa la ñu koy doog a ñi nga gëm ñun ñu gëm ko am ñu taxaw ngeen lii dañ ko mabbu tey te ñii tey ji bu nu amee bu ma taxawati du ma kon imam khalifa ñi ñu melni nañ leen jappalé nañ leen jappalé ba seen daari taxaw seen école yi taxaw motax Sidi Ahmed li nga nek mission bi yalla nga ci am dam man de moy sama bëgg-bëgg man ndax seigne touba ba xex jotté xexal nañu kon tay ji xeex ko du du jot ñu naan seigne bi defal na lepp loolu wax wax yambaare tappale la kon dañuy juk sampat daara yi vite yi ñu remplir ko bo baye ma baye keneen baye ma baye aw digg du aw dig du fi amati ak mboy du amati waaye nag ku ko bayut ak ñeen béyk waa ñu sàmm ko moo waral coow lu bari lii waaye nag yaakaar naa la suñ suñu maam yi fàggul suñ góor-góorlu tur lépp lépp jar loolu laa loolu laa gëm kon maa ngi waaye nuyu waa turni cun ñëpp di nuyu suñu seexoon a ma àndal Cheikh Omar Ka su Modou Matar Fall ak Imam Mansour Fall ak mboolem ku fi nekk rek maa ngi koy nuyu am naa yéen pas-pasu toogoon comme ni ma defan keroog ba nga ñëwee ak ba mu si ñëw toog ànd yow waxtaani ba mu jeex waaye programme yi way xeex xaar rek tax waaye si kon da nga xam ne maa lay dalal fii ba gunge la ba ba ba ba nga ba nga dem ak jàmm nga bàyyi ci jàmm ñu te yàlla na wàcc ci ay jàmm loolu nga xam ne suñu xol sedd na lool ñu ngi lay nuyu baax te la wàcc sa wàccu sa wàccuwaayu maam cër boo am rek fu ma àgg ci sama xol man mm-hmm. soo ma sañoon lu teewaat am day yokk sama cër boobu la am man foofu laa toll si foofu laa toll sama digg sama borom cër bu nit ku baax am rek su ma soñoon day yokk waaye di wàññi ko foofu laa toll ba mu des ki ma ki nga xam daal moom fu ma toll lancé naa ko guerre mooy kii kii ku ku ku ma nekk kooku lancé naa ko guerre foofu ma di nekk moom dafa am jàmm xaw lan wa fi lan xaw li yan wa fi lan daa ko du ko am du ko am kon maa ngi sant baax ma si si di nuyu waa ngaay gi samay dëkkandoo yi ma àndal yëpp ak waa tund ci yëpp ma nga leen nuyu di delluwaay nuyu xalifa suñu xalifa di yàlla ko yàlla gën a dëgëral te yàlla gën ko taxaw taxaw ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf si الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد القائل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صاحب الفضيلة الشيخ عبد الصمد مكي صاحب الفضيلة الإمام الحاجي خليفة جوب السيد الفاضل الحاجي مرخج جان أصحاب السماحة والفضيلة والسيادة الحضور الكريم nuxayyikum bi taxiyatin tayibatin mubaaraka qaa'iliina lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi yëkkati kàddu kàddu nuyoo ah di jiital nag ci nuyoo bi ki nga xam ni ah moo fi wuutu sunu njabootu maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di Serigne Abdou Samad mbacke diko uh, dalal diko sargal di jël suñu nuyo di ko ci loxom di ko ñaan mu tegal nuko ci loxo suñu wayjur di al aam lil tariqati al di cheikh Muntaka Bachir yal na yàlla guddal fanam te may ko wér di ko jaajëfal itam ci kàddu yi tabaarakallaahu bu fi defoon benn seconde rek wax dëgg yàlla doyoon na sëkk waaye mu toog fi li mu fi toog ngir yàlla ak ñeewante njaboot ak wéttali te ku ne xam na ni ñoom amuñu jot ñu di kontaan bu baax ci dajewaat ak moom ci gisewaat ak moom tabaarakallaahu ndax daje woon nañu waaye daje boobu ak léegi ñu ngi am fàttaliku bu neex bu rafet ca daje boobu ah mu mel ni limu mu wax tabaarakallaahu kenn mënatu cee teg dara ñaan gi doy na yéene gi doy na nii ngeen nemmeekoo seen njaboot yi te xam ni njaboot gi benn la ndax samaam Seydil Xaaji Malik si radiyallahu anhu daf daan wax ni ah jur gi de benn la sàmm see wuute mu ni boo déggee ñu ni diw dey toolam ba ruurul ah, mu ni sàmm baa taxaw kon nag tabaarakallaahu boobu taxawaay yi ngeen am ci wattu diine ci sa sàmm diine ci aar diine kon nag yàlla yàlla gën leen dëgëral te yàlla defal leen ci ndam lu bëree bëree bari ci seen yoonu maam bu tedd wi sunu yoonu maam bu tedd wi tabaarakallaahu ñu ngi lay jaajëfal bu baax te di kontaan ah di la yewi rek ndax nag xam nañ ni yéen a ngi ci yitte Mbàkke jërëjëf raafaqat kumu salaama bi ci jaddikum tabaarakallaahu ah ñu nuyu suñu baay bii nga xam ni moo fegook moom di suñu baay Serigne Mor Khoudia Diagne di nuyu boroom dëkk bi di Serigne Ibrahima nuyu nag ki nga xam ni moo tax nu daje fit di imaam alxaaji xalifa Jóob yal yàlla dëgëral ko di leen nuyu yéen ñi fi teew ñépp nag góor jigéen mag ak ndaw di leen ndokkeel ci bés bi di leen jaajëfalit ci taxawaay bi ah ci suñu tur ci suñu làmmiñ waaye ci suñu làmmiñuy kilifa la ko dàmbalee ci xalifa bi sëriñ Babacar si Mouhamadunil Mansour jaar ci ay rakkam sëriñ Maodo si Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz sëriñ Babacar si Abdoul Aziz mi nga xam ni moo féetewoo daara ja wàcc ba ci seeni doom sëriñ Mouhamadunil Mansour si Jamil sëriñ Mouhamadul Mansour al Maktoum sëriñ cheikh ahmed tidiane si mouhamadul mansour sëriñ babacar si abdul aziz ak njabootu seydil haaji malik yëpp rawatina na ka nga xam ni moo leen toogal foofa ca tiwaawan di sëriñ mouhamadulil moustapha si bu sëriñ abdul aziz al amin ñu teewal leen fii man ak suma rakk ji ma àndal di Serigne Abou fay waye tewale litam wax deug yàlla al thaqafiyya muy association éducative bi nga xamni mom le Serigne Abdoul Aziz Al Amin jité won dan ko doxal ànd ko ñom imam mu ëmbaale ittihaadul jamiyat al islamiya di fédération des associations islamiques mu àndoon kook ay mbokkam ak i wëllëreem bu ngeen gisulee tey membre yi association bi yàlla dafa dogal bés bi tombe ak suñu bésu baay ba suñu bésu maam di eh, suñu maam Abdou Cissé bu piir suñu maam Ahmed Cissé radiyallahu taala anhu te suñu baay ba alxaaji Moustapha Cissé yal yàlla yokk leeram nekkoon secrétaire u bi moom ak Serigne Abdoul Aziz ñu àndoon ko di ko doxal fu ñu mës a taxaw fu Serigne Abdou mës taxaw taxaw na ci wetam loolu moo tax bi nu waxtaanee ñu ne ah xam naa dañuy def li wolof wax rekk bu sëll yooy bu giir demuk neen ñu sàkku woon ci man naa ñëw fii ñoom ñu dem wuutu ñu fële ca piir loolu moo tax gisuñu leen fi tey waaye tabaarakallaahu sëriñ xalifa bu wootee njaboot yu xadara bi yëpp dañoo war a teew ndax yàlla dogal na mook sëriñ Abdul Aziz tund wi yëpp ñoo ko taxaw ku fi taxaw tey di ubbi daara mbaa ngay ubbi école mbaa ngay ubbi institut dafa fekk nga jaar ci seen tànk ñoom ñii a ah, mu nekk ci mission boobu nag nekk ci nekk ci ba tabaarakallaahu tey bis bii nga xam ni waa tund cuun yëpp ñoo ko moom ñu di ko ci ndokkeel di leen ci ndokkeel bu baax ah di ñaan yàlla yal na yàlla mottali seen yéene ndax yéeneem bu ko yàlla mottalee waxuma rekk fii am institut waaye ni mu ko waxee léegi ci njëlbeen université lay doon kon nag tabaarakallaahu ñu ngi koy ndokkeel di ko jotal ndokkeelu xadara malikiya yépp ah di kontaan bu baax ci ñëw bi nu ñëw fii yàlla dogalit muy bés boo xam ni noo ko bokkoon ak moom jàpp mu ni ma dama bëggoon bu la yàlla mayee woyof nga ñëw xool si daara ja waaye xoolaale taxawaay bi nga xam ni moom la am fii ci tund cuun ma ne ko incha allahu bu nu yàlla mayee wér ak fekkeek tal danaa ñëw waaye duma yem rekk ci ñëw damay ñëw ñëwaaleel sunu kilifa yu baax yi nu bàyyi ca xadara ba gis liggéey bi fi nekk waaye itam jël engagement ci ànd ak yow ci liggéey bi te ànd ak yow nag ci liggéey bi weesuwul li nga yéene fii nu fexe ba mu jëmmu waaw na nga xam ni noonu la ko suñu wayjur sëriñ Abdul Aziz Al Amin radiyallahu anhu defee woon te daan ko defe ndax yàlla moo dogal bi mu fi jógee ba mu am ñaari weer taawam di sëriñ Babacar daf ma woolu ma ñëw moom ak sëriñ Moustapha bi ma ñëwee ñu yëkkati benn leetar jox ma ma jàng lettre bi muy invitation boo xam ni ittihaadul jamiyat al islamiya ñoo ko yónnee njabootu sëriñ Abdul Aziz di sàkku ci ñoom kenn ku leen wuutu tooge palaas bi nga xam ni Sëriñ Abdul Aziz daan ko tooge ca Ittihaad ñu ni ma loolu nag yow lay sa mbir ndax yàlla dogal na ci njabootu Serigne Abdul Aziz Al Amin yow la ci Serigne Abdul sédde woon daara ji wax ni sama doom yëpp danaa leen dugal école waaye Sid Ahmad moom dama koy sédde daara ji kon nag bu jotee nga demu fekke ji la ñuy def lu ngeen fa dogal rekk ànd nañ ceeg yéen ba ma demee it ñu ni ma sëriñ Abdul Aziz dafa amoon yéene yéene mooy ittihaad bi dund waaye dundal mboolem jamciyaat yi aju ci moom ndax itixaat la boo xam ni fii ci Sénégal ëmb na lu ëpp fanweer ak juróom ci ay jamiyaat jamiya ba ca gën a tuuti tabax nga lu ëpp ñaar ba ñetti maahid islamiya ñu ànd nag di liggéey ngir bëgg suñu njaboot yii di ñëw ñu mën a xam lan mooy seen ndono te mooy ndono mag ñi sëriñ Abdou Samad wax na ko léegi ku jaaxlewul woon léegi jaaxle nga ku tiitul woon léegi tiit nga ndax xamatoo fu njaboot gi jëm am na ñoo xam ni ñemewuñ woon yëkkati bant léegi ñi ngi korkorol di tabax waxuma rek yëkkati bant waaye romb nañ yëkkati bant léegi te dara mayu leen fit ñu def ko ludul bàyyiliku gu ñu nemmeeku ñu bàyyee leen terrain bi bàyyee leen njaboot gi ñu sol ci loo xam ni ëllëg lu mag ñi wax ñu weddi ko te duñu ci mën dara loolu nag bu ñu ko seetaanee ci jëlante ngànnaay lañuy jëm te loolu nag ñaanuñu ko yàlla moo tax war na noo dellu ci yoon woowu nga xam ni ñoom moom lañu rëddoon fexe ba école yi maahid yi institut yi tasaaroo ci réew mi fexe it ba may leen doole doole nag damay wax ni nit mën ngaa góor góorlu ba korkoral dara waaye doole piir soo ko bëggee am faw nguur a ci nguur moo ciy teg loxoom mu mel ni nag nemmeeku nag ni fii ñu tollu nguur la mu waroon a def defu ko nañu waxante dëgg rekk te def gi ñun ñi nga xam ni ñooy mbiri ñooy ndoomi daara bu ñu leen forcé ñu def ko duñu ko def ndax ñi leen yilif di leen defloo di leen teggiloo yéene bi ñu am mooy fexe ba duñu def duñu defal dara daara waaw Serigne Cheikh Tidiane si al Maktoum radiyallahu anhu bokkoon na ci li sabab mu sos al jamiya as saqaafiya ndax dafa dégg ñu ni ki fi nekkoon njiitu réew ca jamono jooju di Senghor nga xam ni du jullit jiite réew moo xam ni téeméeri yoo dajeel juróom-ñeent fukk ya juróom-ñett ay jullit lañu mu ne lii nag naa ci profitoo xeexale diine muy def weer at mu nekk am na alal ju muy yëkkati ju di ko jox école yi nga xam ni dañuy yar njaboot yi ci ngëm-ngëmu budul ngëm-ngëmu lislaam di leen ko jàppale te du ko jàppale ñi nga xam ni ay jullit lañu wala ay doomi jullit lañu ba ko Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu dem seeti ko ba mu demee seeti ko dal ci kawam ni ko lii nga def boddi konte lay jur ci réew mi ca la ko waxee ni ko waaw Cheikh Tidiane bu ma yëkkatee ndimbal li jox la ko yow balaa am ñaari fan sa njabootu maam ja ca Tuubaa ni lu tax ñu jox la ko xanaa ñun bokkuñu ci réew mi wala sa njabootu maam ja ca Kaolack yi moom itam ni ñun xanaa bokkuñu ci réew mi mu ne ko kon nag su ngeen bëggee ñu di leen ko jox na ngeen boole seen bopp waaw da ko wax waaye waxi waxi pexe rek la ndax nguur lu mu mënul amul te mën naa boole ñooñu ñëpp dimbali te du wàññi ci nguuram dara waaye pexe la sëriñ loolu sëriñ Cheikh nag ni ko lépp nga ma te danaa la tontu. loolu mooy ñun ànd ñu nekk benn waaye danaa fexe ba ñëpp ànd nekk benn ca la woowee sëriñ Abdul Aziz Al Amin radiyallahu anhu mu ñëw mu ni ko na ngeen taxawal kuréel gu leen di boole yéen këri diine yi sëriñ Abdou dem seeti sëriñ Fàllu Mbàkke radiyallahu anhu wax ko ko sëriñ Fàllu rafetlu ko mu dem seeti suñu maam cheikh ul islaam alxaaji ibrahima ñas radiallahu anhu mu rafetlu loolu mu dem seeti suñu maam ja ca yoof mu rafetlu ko mu ñëw seetul suñu maam ji ci njaasaan mu rafetlu ko mu ni kon nag taxawal lu mel noonu jot na ci la ñu créer bi ñu nekk ci nag di ci dox moo bàyyi alxaaji Moustapha Cissé la nga xam ni moom la nguur daan xeexee euh, doomi diine yi ñu fexe ba nguur di ko jël di ko leen ko jox par ba looloo waral képp kuy fayeeku ci nguur tey jàngale ci arab wala ngay jàngale diine war nga leen koo gërëmee waaw dama dem ca Casamance sama benn mbokk invité ma fa ba ma demee dëkk ba mu nekk fi ñuy jaar ci yoon wi am na dëkk bu ñu njëkk a jot fa ñu doon toog di noppalu génn góor fekk ma fa ni ma yaay doomu sëriñ Abdou Aziz ma ne ko waaw mu ne ma xam nga kan mooy sëriñ Abdou ma ne ko ah yaakaar naa ko de mu ni ma ah, déedéet yow xamoo ko ñun ñii ci àll bi ñoo ko xam mu ni ma fii ba euh, Kédougou ma ne ko ah, amul benn dëkk bu sa bàyyi dëkkul tànkam foofa mu ni ma te jamono jooju oto yombul jumtuwaay yu la mën a yóbbu yombul mu ni ma keroog bi muy ñëw suñu dëkk mu ne ma ñun xale yi dañoo def benn mbooloo ñu wax ni sëriñ Abdou dey dana fi jaar waaye jëmul ci dëkk bi ci beneen dëkk la jëm ñu ni nañ ko dogale mu ne ma ñu dogali ko ca buntu dëkk ba muy romb oto bi ñu taxaw ñu téye ko mu ni lu xew ñu ni ko ñun dañoo amul fii école bu nu jàngale suñu doom yi alquran dañoo bëgg it jumaa ju ñu mën a daje di julli nee na sëriñ ni leen loolu rek ngeen bëgg ni waaw mu ni waa baxna neena dal di dugal loxom ci poosam genné 300000 jox leen ko ni leen tambali leen ma ngi dem buma delu ci waté dina fi jaar te buma dello inshallah bala at me delu si da ngeen am jakk mu ni man non la ko défé top na suñu dëkk yi benn par ben di tabax école di tabax jakk mu ne ma kon nag war ngeen a góorgóorlu de mu ne ko waaw ñun de dañu yaafus waaw waaye ci seen barke incha allahu ku dogu rek yàlla mën na la defal sutura ah loolu moo sabab ittihaad bi sëriñ bi ànd kook ñoom ñii tabaarakallaahu fu ne ñu dem fa yéene boobu mu amoon it mooy continuer ba tey ci wàllu taxawal ay école taxawal ay institut taxawalit wax dëgg yàlla ba ci ay université insha allahu yàlla danañu ko defal ñu rafetlu daje bii ndax fii ëttu xam-xam la ëttu leer la ëttu daara la ñu gërëm imam bu baax ci taxawaay bi tabaarakallaahu ah nii mu ko defe it noonu la ko suñu maam yu baax yi daan defe suñu maam Seydil Hadji Malick si radiyallahu anhu fu mu mës a dem ñaari ñaar ba ñetti mbir ñoo mooy yitteem na fa am bërëb bu mu mën di jaamoo yàlla na fa taal jàngu jàngal doomi jullit yi waaye na fa fexe bërëb bu nit ñi di tuure seen ñaq moo tax daan na wax ni man sama daara maa ngi ko sos ci ñetti baat ñetti baat yooyu mooy ja ju ba waaw jàng tax boo jàngul doo xam dara boo jàngul doo mën a jaamu yàlla ndax li gën a kawe ci li yàlla binde doomu aadama te bu ko defee rek yeyoo li ko yàlla defal mooy ñu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni te ibaada googu di al ibaadatul xaalisatu lillahi taala ci jaamu yàlla boobu nga yàlla bëgg yaa ngi koy amee ci xam-xam moo tax ñu ni jumtuwaay lu mu tedd tedd ma nga jëlee tedd nga am ca lañu koy jëfandikoo waaw jaamu yàlla li muy tedd tedd tedd tedd nga ne bu ni toll la xam-xam am ndax boo jàngul doo mën a jaamu yàlla mu ne kon nag naataal daara jàngal doomu jullit yi ba ñu mën a jaamu yàlla soo mënee jaamu yàlla it te amoo fooy tuuree sa ñaq sa jaamu yàlla day taq suuf waaw moo tax bëri na ku ñuy askanale ci moom ak sell boo seetloo la muy dunde bu ko tuur ñaqam lalul cell tega des na moo tax ñoom mag ñi fu ñu am daara tàmbalee jàngal nit ñi ba ñu mën a jaamu yàlla gannaaw booba lanu cay toxtal mooy fexe ba ngay tuur sa ñaq te mooy bay te mooy commerce te mooy leneen ak leneen sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu daan na wax ni ñaar mooy métier taalibe ñu ni ko ñaar yooyu mooy yan mu ni mbay ak commerce waaw ñaar yooyu dem nañ ba ñëpp d'accord ni moo gën a barkeel ci li nit di liggéey soo dee bay day day barkeel ndax mbay ma du yem ci yow kese xamuloo ne mag ñi wuñ bay rek parce que dañoo xam ne bay ci la lépp di dunde yaa ngi dundal suuf sa yaa ngi dundal gàncax yaa ngi dundal li la wër waaw ba ci picc yi njanaaw yi bu ci naaw tàbbi ci benn gub lekk ci la mu dundee loola yiw woowu buñ la ko fayee rek doy na la moo tax mu daan wax ni ah bu dee ñun dongo daara yi nag mu ni bu dee mbay nee na da ngay soxla ci mbay nee na ñetti taa ñetti taa yi mooy lan mu ni teele teewe ak tengal waaw na teele booy bay lu ne teel koo def waaw soo teelee yëpp incha allah da ko jaayee ci prix bu se bu bu bu bu baax waaye bu yéexee rek musibaam mu ni moo tax teele lu baax la ci mbay teewe yor tool fii te dëkk Casamance xam nga ni tool ba borom seeni borom bu nu amee fulla doo ca mos dara moo tax mu ni teewe na la jege tool na la jege ngay ñëw di xool la dox lu ko may rek ñu defal la loo bëggul mu ne bu ñetteel bi nag mooy teengal ñay liggéey ca tool ba nañu am lu ñu def ci seen biir ndax saaku bu deful dara du taxaw waaw mu ne bu dee ci wàllu commerce yi nee na na nga góorgóorlu yow mi def commerce nee na ba bul tàmbali ci suba bismillahi rahmaani rahim nee na ni alhamdulilahi rabbil alamin ca ngoon nga te mooy nga tàmbali commerce bi tàmbalee noos mu ni booy def commerce yi na nga wattandiku ñetti bukki mu ni bukki bu njëkk bi nee na mooy yow ci sa bopp nee bu sa bëgg-bëgg ëppé sa bénéfice bu yàggee nga lekk sa capital mu ne bukki ñaareel bi nee moy ñi di jënd ci ak di lepsi. si bu ñëpp dé lepsi si ñëpp duñu fayandoo nee kon faaw nga mus waaw mu ne bi nak nee moy mooy banque bi seen yéene ñom banque yi moy fexé ba li ne ci sa poche ñu fexé ba jël ko def ci seen poche nee kon yoy itam na nga mus ba buñ la ko def Muteng mu teunk dundu dooma adama motax yi ñett ku ci nekk rek boy bo nga xamni yaangi ci liggey kon tabarakallah imam khalifa bu nu ñewé fi fekk la nga ubbi dara ah ñuy ñaan dara ji inshallah yalla nako yalla yok fekk la nga dugal ci biir daara gi yarinu diine bu sell ba gune yi mën a jaamu seen boroom waaye mën koo sellal parce que nit ñi tey réew mi ñépp a ngi jooy fi xale yi yegsi orma amatul fenn sutura amatul fenn te koo gis muy jooy xam na li tax xam na li tax danoo bàyyi sunu yoon mag ñi sos daara ñu ni déedéet école ba xale bi bu bu bu bu bu amee juróomi at mbaa juróom benni at nga yóbbu ca euh, jardin d'enfant ba te mu waroon ci ñetteelu atam nga dugal ko ci daara leeru alquran jiitu ci dënnam waaye danga naan déedéet ah, léegi man daal dama avancé dama civilisé da ngay jël xale bi yóbbu ko ca euh, maternelle ba luñ ko fay jàngal tëgg ak fecc xale bi nga lekk ñaari at ci ñoo ci moom ñaari at yooyu li muy jàng yëpp mooy tëgg ak fecc ñu door koo dugal nag cycle primaire mu tàmbali la muy tàmbalee mooy lan jàngul suñu mag ñu baax ñi jàngul istuwaaru réewam waaye magu jàmbur lay jàng ak istuwaaru jàmbur waaw jàng ñooñu jàng ñooñu jàng ñooñu ba dem bac ba dem terminal ba war a def baccalauréat su defee bac ca ñooñu ñu ne ko waw góore te xamagul réew mi mu ne mën réew la nga jël ko dugal ko ci avion ni ko comme am nga bag dama lay terale yóbbu la Europe nga jàngi mu dem ci seen université ya di tubaab bu ñuul su ñëwaatee fii ñii muy gis ñuy ay doomi daara du leen def nawle ay surga la leen di def ni tubaab yi defe woon suñu maam yi ay surga waaw moo tax bari na ko naan léegi réew mi réew mu am indépendance na ba réew am indépendance maa ngi koy laajte ba léegi Sénégal ndax am na indépendance ah am na indépendance kon lan lañu ah colonisation bee dox ba léegi te dégg naa suñu wéyjur sëriñ Abdou Aziz Al Amin radiyallahu anhu mu ni keroog bi Ngalandu Diouf ànd ak Senghor ñëw seet si sëñ kër si neena ñu ñew fekk dañoo ñew di wax loi cadre loi cadre moy li ñu doon may ñu ñu mom suñu bop ñu ñew di taggu neena ñu ñew tok sëñ babakar ngangul neena ñu nako waaw di la taggu ci ndax dañuy dem défendre loi cadre neena na babakar waxul ni tek neena ñom tam ñu ni tek ba jotaay bi di bëgg yagg yàgg Abdou neena ma ñew ni len te mu ñaanal len nee ñu talal sëñ babakar ñaan nee ñu wacc dem bi ñu ñëwaat nee na leen gungé ba dellu ci nee na babakar Babacar si laaj ko ni lan moy loi cadre sëñ Abdou ni ko ah loi cadre moy ñu mom suñu bop moy nangam moy lii tubab yi duñu def li tubab yi nangam nee mu ko ah man de lool dama yaakaar ni dafa tel mu ko ah lutax nga wax loolu mu ne ko ndax tubaab yi ah dëgg la ñi ngi fi ñooñu coloniser mu ne ko waaye tubaab amul caay-caayu xol mu ne ko caay-caayu jëf la am mu ne ko caay-caayu jëf nag moo gën a sedd caay-caayu xol mu ne ko te damay ragal bu fi tubaab yu jógee ñu indil ñu ay tubaab yu ñuul ñu di ñu teg lu raw li ñu tubaab yu weex yi daan teg te luñ ci mën dara ah, yaakaar naa loolu ñëw na léegi de waaw indil nañ ay tubaab yu ñuul ñi di ñu def lu leen neex bu teyee ñu ni waaw nangam bu subaa ñu ni ñuul na bu gannaaw subaa ñu ni weex na gannaawaat suba ñu ni xonq na loolu mooy li nga xam ni moonu dal kon dafay dal di nekk farata ku nekk taxaw waaw ñoom ñii duñu noppalu ko te waruñoo noppalu ko ndax bu ñuy noppalu ko rek musiba de am waaw kon nañu daw jiitu ji ci njaboot gi ndax Serigne Ba Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu tubaab yi dañoo ñëw ni ko dañoo bëggoon nga encourager njaboot yi ci ñu dugal seen doom yi ci suñu école yi mun leen Babacar mii de bu ngeen ma ko laajee ma jox leen ko ndax jiitu naa leen ci moom ba noppi waaw wéyjur wu dekkil noonu nga war a def ci sa njaboot fexe ba jiitu ñala nar a saay-saay ci ñoom te jiitu leen nag mooy nga jàngal leen diini jàngal leen alquran ñu wattu ko balaa ñuy dugg ci école ñiy seetlu seetlu nañ ni xale bu mokkal alquran balaa muy dugg école su duggee ecole mooy raw ca kalaasam waaw bari na xale yoo xam ni li leen yàlla defal ci xel ak li leen yàlla defal ci mën a jàng dara mayu leen ko lu dul dañoo jaar ci daara waaw bari na sax ku koo gis mu muus da nga naan ko waa yow ndax da jaar ci daara ndax doomu daara day muus doomu daara day ñor doomu daara day jàmbaar doomu daara day ñeme risque waaw loolu la daara di def ci sa doom te ñi ñett yi su dajee ci nit fu ne mën na faa nekk waaw boo ko yóbbu woon kuli koro sax dana dellu te bu dellu see jikko yi mu amee rek lay amee moo tax yéen way jur yi na góor góorlu ci jël xale yi jox leen ci joxe leen ci daara yi jël leen xale yi ñu former leen ci njàngum alquran jël leen xale yi ñu former leen ci njàngu diine bu ñu defaree seen diine ba mu normal boo leen bu ngeen yaboo soo yóbbu leen leen France kenn du mën ci ñoom dara waaye seppee xale bi ci daara ji am na ñoo xam ni dañuy jël xale yi yóbbu leen ci daara ndax dañu leen a sonal xale bi day ne ci kër gi di trouble rek nga ne ko waaye yow doxal dem ca daara ja ëpp naa def xale da koy topp xam ni lii muy jàng mu yëg ni lii muy jàng mooy njariñu àddunaam mooy njariñu àllaaxiraam waaw soo ko defee rekk dana fonk daara waaye bu fekkee xale bi sonal laa tax nga yóbbu ko ci daara ji ñàkk pexe moo tax nga yóbbu ko ci daara ji nawoo daara nawoo li ñuy def ci moom ci wàllu daara bu ñu demee ba ca kanam yuuxu dana jib fu ñu ko foogewul woon kon su ko defee nañuy jël sunu njaboot yi dénk leen daara te xam-xam leer la waaw xam-xamu diine leer la xale boo jàngal ci wàllu diine yar ko ca bu bu demee rek mu baax waaw su ko defee kon lii imaam def loolu mooy liggéeyu mag ñi suñu mag yu baax yi Serigne Seydil Hadji Malick maam Serigne Touba maam bu Kunta maam Limaamu Laay ñooñu ñëpp li leen taxoon sonn mooy lii waaw fexe ba dëkk réew mi fu ne am ay jàngu waaw Tiwaawan Seydil Hadji Malick du dëkku cosaanam waaye bu dee fu ñu tuddee Tiwaawan tudd Seydil Hadji Malick lenn rekk ko ko may mooy leeru xam-xam te ba muy ñëw Tiwaawan moom Cheikh Al malik wax nañ ni mag mi ko fa njëkk a indi maam Sàmba Tukulóor Ka la tudd maam Sàmba Tukulóor Ka mi ngi dëkkoon fii ci kër Yoro saajo ci wetu Tiwaawan di magum xaadir mu am xam-xam yàlla may ko kashfu mu gis ci Seydil Hadj Malick lu kenn gisul mu ñaan ko ngan Seydil Hadj Malick jóge Ndar mu jël si ko ci gaar bi ànd ak moom kër yoro yenn yendoog moom ba ba ba ngoon mu jiite ko tisbaar ñu ànd ton continuer ba tàkkusaan mu jiite ko tàkkusaan ñu ànd continuer ba timis mu jiite ko timis ñu ànd continuer ba gee mu jiite ko tim gee ñu ànd continuer di waxtaan ba fajar Seydi Hadji Malick jiite ko fajar tàggu ko ni ko maa ngay dem mu àndaat ak moom war ci fasam ànd ak njabootam ñu gunge ko ba ci gaaru Tiwaawan mu dellusi ñu ne ko góor gi waaw yow sa gan gi dafa ndawe ci at te nga fonk ko mu ni waaw maa xam li tax ma fonk ko ndax kii de li muy ndawe ndawe ci at bis bu fi màggee mook mbokkam ma ca tuubaa bis bu ñu fi màggee li ma gënoon a bëgg ci réew mi dana am te mooy taali jàngu yu bari ndax daara bu njëkk dañ daan taal courant amul lampe amul dañ daan taal sébb bu rëy ñépp wër ko ku ne yor sa jukki di jéem a góorgóorlu mokkal jukki bi balaa sébb bee fay waaw yow ngay taal sa lamp ba mu leer naññ léeg-léeg sa nga taal sa ventilateur jaaxaan ci sa kaw lal yor sa bigak yor sa kaye te mag ñi amuñu woon loolu kon yow jàng war na laa yomb seydil El malik Malick li tax bu ñu nee Al Hadj Malick ibnu Ousmane kii waxtaan sànq dafay tudd maam yi ba ci Seydi El malik mu continuer ma ne kii de xam na ndax bari na kuy wax di tudd Seydi El Hadj Malick te du continuer ba ci baayam di maam Ousmane te Seydi El Hadj Malick téere bu mu bind bu bindee turam lam cay teg mooy Al Hadj Malick ibnu Ousmane. تاب عليه وعلى الرحمن علي عليهم الرحمن ندخ مام عثمان دا فاي نيتو خم خم يالا بوكو بولي وناك ني نانك خم خم تي ريومي تا داماي واخ ني شيخ الحاج مالك سا خم خماكو ميني ndax téré bu mu doon bind te amul té amul amul téere ba mu di ko laajte ba ñu yebal ko ci maam Malick Sow ca gaaya loolu moo indi maam Ousmane dem gaaya dem doon bind téere bi nag ndax booba euh, euh, jumtuwaayu xam-xam yombul soo déggee téere bu baax da ngay wut sa bic wut say feuille mbaa nga wut say der dem fa ñu téere ba nekk nga toog fa diiru la nga koy bind boo ko bindee ba mu jeex nga tàggu leen dem maam Ousmane loolu la doon def ci gaaya fa la ko yàlla wanaleeg maam maam Fawad di ndeyu daara maam Ousmane di baayu daara ndeyu daara ak baayu daara nag ku leen boole faw nga jur doomu daara yàlla terele leen Seydil Hadji def limu def ci mom tabaarakallaahu jotaay bi mayewul sax wax ci mom ndax mom boy wax ci mom ci walu xam xam-xam fi la la fajar di fek muy jaar fi mu jaar jaarale fi ñi mu fi jaarale fu ne mu samp fa menn mag sol ci yow li mu sol ci yow ni la demal nag li ma def ci yow nga def ko ci doomi julli di gannaawam njabootam yu tedd yi Cheikh Alxaaji eh, Serigne Babacar Sy eh, Seydi Ahmad Sy mi taawam Serigne Babacar Sy mi topp ci moom Cheikh Alxaaji Mansour Cheikh Alxaaji Abdou Cheikh Alxaaji Habib ñuy juróomi biddiw yoo xam ne ku nekk am na loo leeral ci diine seen ginnaaw seeni njaboot tegu ca tabaarakallaahu dégg ngeen ba tàyyi eh, sëriñ Mouhamadul Mansour si boroom daara ji waaw sëriñ Cheikh Ahmed si al Maktoum élève yàlla bi Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si Jamil ca ak seeni njaboot ba ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ñoom ñëpp xam-xam rek moo leen ñoroon waaw yàlla defal leen li mu leen defal fu ne ñu jaar fa lu ne ñu jàng ko bind ci domaine bu nekk waaw damay wax ni li ñu am ci ñoom ci wàllu xam-xam benn kër amu ko ci àdduna bi waaw li ñu bind bàyyi fi mën naa wax ni fii ba àdduna di tukki lu ñu soxla ci suñu wàllu àdduna mën nañ ko faa jëlee rawatina nag suñu wàllu kon boo amee kilifa yu mel noonu ah ñu jaar fi nu jaar ah boo dee seen njaboot war ngaa bàyyi xel xam-xam war ngaa yittewoo xam-xam war nga góorgóorlu ba foo toll di sa pas-pas ci xam-xam di nàmm sa yëg-yëg ci xam-xam kon su ko defee tabaarakallaahu ah daara ji mooy daara ja ca tiwaawan daaray leer la daaray barke la daaray yar la waaw ku fi indi sa njaboot ñu yar la ba boo xëyee ëllëg say njab say moroom yaa cay raw waaw parce que nag li ñu fàtte léegi mooy dañu jàpp ne rek njàngale ci njàng rek la yam déedéet njàngale ak yar ñooy ànd njàngale ak yar ñooy ànd xam-xam bu ca yar àndul boroom njariñ du ko jariñ ci dara waaw moo tax Seydil Xaaji Malick ba mu jëlee sëñ Babacar Si ak maam si Ahmed jox ko maam Malick Sarr pour mu jàngal leen dafa ñëw ci maam Malick Sarr ni ko ñaar rek laa bëgg ci ñoom ñaar mu ne ko ñaar yooyu yan mu ne ko xam-xam ak yar bu ca benn dee ñàkk nay xam-xam te yar des waaw mu ni ko bu ca benn dee ñàkk na xam-xam ñàkk te yar des waaw moo tax yar lu am solo la waaw léegi nag fexe nañ ba suñu école yi dañuy jàngale rek te duñu yare moo tax xale yi bu ñu ma bu ñu demee ba génn ca kenn du leen mën a jëfandikoo waaw waajur yépp a jaaxle waaw foo dem ci ci réew mi lol la ñuy joytu xalé yi ni ñu mel xalé yi nangam xalé yi seen yar xalé yi seen comportement té dara wu len ko lulul jangal nañu leen te yaruñu len kon su ko defee ñii ci daara ji xamna ni ku len fi indi di nga am li nga bëgg ci yar di nga am li nga bëgg ci xam-xam ñu ñaan yàlla nag tabaarakallaahu ah yàlla fi yàlla dotti xéewal ba ñu fi ñëwaat di fi dellusiwaat di ubbi ay école ak i ci gox bi ak li ko wër ndax réew mi soxla na ko njaboot gi soxla nañ ko ñu mel ni imaam it dañu soxla ñu leen jàppale waaw xawma nguur yëg na ko xawma yëgu ko waaye kuy def lu mel nii te amuloo benn organisation bu lay jàppale lu dul say dooley bopp nga tabax daara dolli ca euh, tool projet boo xam ni ëmb na ñetti wàll ëmb na mbay ëmb na euh, wàllu yarum jur ëmb na wàllu toppatoo ay ganaar xam naa de eh, na ma sama mbokk njóobeen yi baal ak njaayeen yi waaye duñ ko bañ de ah, bu yàggee léegi rek mu dox ndax eh, fu yooyu bari moom yaakaar naa sama kalaas gi danañ fa sawar de dem waaw ndax daara moom faaw mu am yooyu eh, dañoo wax ni góor gi dafa euh, nekk ak xale yi ci ëtt bi xale yi ci koñ bi su dajeeg ñoom ci ëtt bi lu mu wax rekk xale yi weddi ko mu metti ko lool ndeysaan mu di ko jooytu nag waaw toog ak menn mag di ko di ca waxtaan ak moom mag mi ni ko waaw lu la metti mu ni ko man daal xale yi ñoo ma metti ndax lu ma werenteeg ñoom ñu weddi ko te xaw ma lu waral lool te maa leen mag ci at nee na ñu ni ko góor gi mu ni ko ah xale yi de da nga leen a mayul ndékki mu ni ko soo leen mayoon ndékki léegi rek dootuñu la weddi ah góor gi def nag saa bu xëyee rek ni soxna si defaral fonde soxna si defar fonde bu neex def ci meew def ci yëpp ñu defar ba mu baax bu xale yi ñëwee rek ku ne ñu jox la benn pot nga tànk naan waaye bu naanee boo naanee ba pare góor gi commencé waxtaan bu waxee nga ni ko laa yow dal góor gi kenn ëpp la xam-xam ci àdduna moo tax loolu day baax ci daara waaw léeg daara ji tàng waaye bu xale yi amee lu ñu dugal ci seen biir rek coow du bari waaye bu daara ji xawee doy waar te dégg naa Seydil Hadji Malick daaraam ja dafa metti woon ba laaxu daqaar lañuy ñuy añee moom la ñuy reeree ba bés nag ndeysaan ndekete ñoom laaxu daqaar ji muy yi ñuy añee di ko reere dañ ko wutaloon tur pour bañ mu xam ko ñu tuddee ko jàkkeer yi waaw nee na bu ñu ñëwee rek ni waaw tey lu ñu togg ñu ni ah xam nga ko waaye jàkkeer ji ba bés nag mu dégg leen ñuy wax jàkkeer ji mu ni mu mu ni leen waaw dama bëgg a xam li ngeen tuddee jàkkeer ji lan mooy jekk jàkkeer ji ñu ni ko mooy laaxu daqaar ji ñuy añee di ko reere mu muuñ ni ah xaw ma jàkkeer la am déedéet waaye fu lew la jóge waaw ni aka lew moo tax tabaarakallaahu ah bu ngeen taxawalee lu mel nii ci daara ji mu wóor ni xale yi fii yi ñu fii indi li ñuy dunde di ko lekk muy dugg ci seen biir ci fu lew la jóge te bokk na ci liy leeral xam-xam di ko sellal ngay dundee lu lew loolu dañ la ci sant gërëm la ci imam ah ñaan yàlla mu yokk ko tabaarakallaahu ba mu nekk projet te eh, sunu ñaan ak suñu yéene it mooy ñi nekk autorité te ngànk réew mi projet yi ñuy jël di ko financer ñoo xam ni xëy na sax maag ñooma yem rek du ñu ay baykat ah ñu fexe ba jàppale leen ci salaamaaleykum incha allah salaamaaleykum si si si da ngeen def alhamdulilah barakallah sama doom Diop waaw waaw dëgg Cheikh da nga def sal daal na ngeen doon alhamdulilah sa leen coono yi macha allah salaamaaleykum alhamdulilah salaamaaleykum seen seen seen seen na ngeen def alhamdulilah seen doy bay doy bay Mbartu Diop ah Diop Diop Diop ah, waaw waaw ah noo bokk bàyyi. Ah, waaw ah, waaw wallaay Diop barakallahu Diop Diop macha allah. asalaamaaleykum. xaaj da ngeen def alhamdulilah. sëñ Cheikh nag dénk nañ la ko. ah tabaarakallaahu jërëjëf xam naa li ñuy wax rek naan li duuf ci nag wi xajul ci cin li. sëriñ. suñu wayjur bi Baye Mor ñu sant ko gërëm ko ah di dalal suñu uh, mag waaye suñu soppe Serigne Cheikh Ahmed Tidiane sàll ak délégation bu tedd bu am solo bi mu àndal gannaaw dalal gi nga xam ni imaam dalal na ko ah ñu sof suñu kàddu ci kàddoom di la dalal jàmm di la jaajëfal ci tànk yi nii nga ñëwee fii nga xam ni tabaarakallaahu ak ah, ku ne xam na seen jot ku ne xam na it seen temps ni mu seere waaye ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw ngir yàlla ak kóllëre ngir yàlla xam ni lii seen yëf la ni ko imaam waxee bi may wax ba tudd autorité yi nga yegg si ah, lool nag du hasard ndax eh, tabaarakallaahu li ngay yëngatu te di ko sàkku bu la yàlla defalee sa yéene lii yëpp ci lay dugg te mooy dimbali njaboot yi dimbali ñi néew doole fexe it ba tabaarakallaahu seen dox jëm ca kanam jéego yi gën a bari te loolu buy politique waaw dama koy wax barki démb rekk ay mbokk ca Tëngéej ma ni leen am na politik bu kenn bëggul man leen boobu la mag ñi di dii nga man leen waaye am na politique bu ñu bëgg nag bu dee politique daal ni ñu ko waxee ci yéen ñi jàng c'est l'art de de gérer la cité bu dee loolu mooy politique boobu la yonent bi gërëm boobu la yàlla gërëm ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daf ni ki gën ci yéen mooy ki ëppal njariñ nit ñi kon ki ëppal njariñ nit ñi la muy def politique la ndax njëriñ luy dellusi ci cité bi njëriñ luy dellusi ci population bi boobu mooy politique bu baax waaye bii ñuy tuddee politique politicienne moom waxul taxul ñuy wax ndax dafa mës a dégg suñu wéyju Serigne Abdou Aziz mu ni dafa dem fii ci Louga nee na looloo taxoon sax mu daan wax naan politiciens yi ñoom ñëpp safara lañ jëm na nee na dafa dem ci Louga nee na am ku mu doon seet gaare ci benn taatu garab di ko xaar nee na dégg benn mag muy waxtaan ak benn xale xale bi naan ko góor gi politicien yaa ngi ñuy bëgg a reyuwaay waay piip piip fu ne ñu ngi fi romb nee na mu ne ko doom politique fukk la mu ne ko ah, fukk yooyu yan la mu ne ko fukki jikko su nekkul ci yow doo mën a def politique te mooy politique bu bon bi ñuy wax mu ne ko fukki yooyu yan la mu ne ko bu ci njëkk mooy tasug mbokk waaw politik rek moo mën fekk ñaari mbokk yu bokk ndey ak baay mu fexe ba teqale leen féewale leen kay di saaga morom mi kii di dóor morom mi mu ne ko bu ñaareel bi wax loo def ak def loo dul wax muy ñett waaw ba ngay bëgg a falu da nga diggé wax wax wax wax wax wax waye bo paré rek génn ci buñu waxé nga ni ah way dama doon politique rek bañ nañ ko sax ba lég lég ku ñub ak ñun la yow politicien nga waye moy bu bon bi mu ne juromel bi mu ne ko ñi la jàppale ba nga yéeg nga sanni len fi ñi la doon xex ci bañ nga nga ñom mu ne ko juróom-ñetteel bi mooy xaj juróom-ñaareel bi mooy xomp sa njaboot mu ne ko lan mooy xomp sa njaboot mu ne ko da ngay jóge ci kër gi génn soxna si dab la ni la dépense bi nga yuuxu ko saaga ko ni ko nii rek ngeen di def bu ma ngeen di ma sonal dem ci meeting bi ñu ñu jiin la nga génne fukki junni mayee ne loolu mooy xomp sa njaboot mu ne ko bu juróom-ñeenteel bi mooy ban mu ne ko boru julli yu dul jeex ndax boo xasee nekk ci politique bu ñu noddee timis doo julli foo toog waxtu julli fekk la fa da ngay da ngay maasale rek mu ne ko kon boru julli dana bari lool mu ne ko bu fukkeel bi nag mooy foo toll di réunion rek waaw réunion suba réunion ngoon réunion euh, génn góor dolli ca ni ma boole ca euh, ku la daan jot avant ngay politique ci sa téléphone bis boo faloo dootu la jot na nda am na ñoo xam ne bu ñu tàmbalee politique ba saa boo nee kar ñun la allo loo wax ñu ni waaw waaye boobu mooy bu bon bi waaye bi yonent bi digle ku ci nekk rek incha allahu yàlla dana la defal ndam looloo waraloon sunu wayjur yi duggoon ci politique Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum turandoom nee nag ba may def politique bëgguma woon a nekk ci nguur mu ne waaye dafa am lu ñu waxoon luñ fi waxoon ma ma bëgg mu dañ fi te mooy doomu daara du fi tekki dara te ñépp daaraa leen jur gis nga kii maamam jëwrin may sa moo dëkkaloon Seydil jël Malick Tiwaawan moo ko joxoon fu mu dëkk dalal ko tabaarakallaahu nangoo naa ci suñu wéyjur sëriñ Abdou Aziz mu ne keroog bi ñu tàggee sëñ Babacar si jëwriñ may sa mu ni dangeen a juum ndax dañ ko dañu jékki-jékki rek yëggatootul ñu ni dee na am na soo ñu naan sëñ Babacar dekkil na ko dee mais du noonu feebar bi daf ko jàpp yëngatootul ñoom ñu yaakaar ni deena ñu ñëw tàggee ko sëñ Babacar si bi ñu ñëwee tàggee ko ko mu ne leen demul demagul ndax bi ma fi toogeeg léegi waxaguñ ma ni ruuxam dana dem ci waxu nitu yàlla daldi woo sëriñ Abdou Aziz ni ko demal yóbbul ko sama kurus gi soo demee nañ ko ko raay te ngeen daggal ma ci weewam indil ma ki doon dem ba muy dem di daggi weewa la dem fekk ñu jële ko ci margo bi di ko dugal ci kër gi ñu ñëw ni ko ah, góor gi de dafa mel ni daal dafa xamoon rek mu ne waaw loolu lay mën a doon ndax ku toll ni jawrin Maysa di fi jóge balaa fay jóge dana waajal boppam xamoo ne am na nitu yàlla yoo xam ne balaa ñu fay jóge waajal seen dem loolu martaba la ci tariqa bii waaw am na ñoo xam ni sax seen ñami dëj ñoo koy togg jox ko nit ñi doog a dem wuy ji seen boroom waaw kon pour wan leen ni moom ah wax dëgg yàlla suñu euh, doomi wéy yur la nook moom noo bokk tiwaawan noo bokk xadara ba noo bokk kër ga lu ñu fa war rek ñoom ñi looloo leen fa war kon nag tabaarakallaahu ah ñu rafet lu teewaayam rafet lu lii mu def te bu ko defalee imaam ñun ñëpp la ko defal ah ñaanal ko yàlla li mu bëgg yàlla ko yàlla defal li mu yéene tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla mottali te yàlla dooleel ko dëgëral ko may ko kàttan ba yéene yëng bébét yëpp mu mottali ko ñu ngi lay sant bu baax ah lii day rëy na ci njaboot gi lool ndax suma wayjur da daan wax ni ñett ku ko xeebal nit rek yaa ko nit ku ko xeebal sëriñam yaa ko tooñ nit ku ko xeebal soxlaam yaa ko tooñ nit ku ko xeebal bésam yaa ko tooñ kon bés bi tabaarakallaahu wane nga ni rëy na ci yow wane nga ni it sa bés la wane nga ni it tabaarakallaahu ah fonk nga njabootu tund cuun yëpp ah loolu nag tabaarakallaahu ah dañuy ñaan rek yàlla na yàlla fay la yàlla fay la sa taxawaay ak sa yéene ah tabaarakallaahu kàddu yooyu rekk lañu ci doon toftal ci li imaam wax ndax daanaka li ñu doon wax da dugg na ci biir lii ñoom ñu ñëw dëggal ko ndax li ma doon wax rek mooy ah ku def lu mel nii taxawal daara ak école taxawal benn tool boo xam ni daanaka ñetti fànn yi ci wàllu projet mi ngi ci mbaye ngi ci sàmm ngi ci yar jura ngi ci loolu ku ko def dama wax ni nguur warna la laa waaw bu ko yëgee warna la laa bu ko yëgul warna la laa ndax yi rek ka fi ne sayyidil haji malik fu mu taxaw ñett yi ñoko dimbali jang julli bay waaw jangal nit ki ba mu jaamu boromam ndax bala nga jaamu sa borom il faut nga xam ko su la jàngalee ba doo mën a jaamu sa boroom nag mu may la fooy tuuree sa ñaq di dunde sa doole bañ di dundee doole jàmbur loolu tabaarakallaahu moom la imaam xalifa def fii àndoon kook suñu wéyjur sëriñ Abdou Aziz Al Amin nga xam ni moom exemple la ci wàllu woowu fu mu mës nekk tabax na fa njàngukaay def na fa daara dagg na fay tool ba bërki démb la demoon buleel ca saalum bayeeli ko tool boobu mu fa amoon tabaarakallahu ci ndigalu magam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ñu daan ko bay at mu ne te at mu ne rekk yàlla gën cee dolli xéewal muy gën a yaatu loolu tabaarakallahu firnde la ci lii imaam def wane na ni mook Serigne Abdou Aziz ñoo bokkoon gis-gis te gis-gisu Serigne Abdou bokkoon na mu ci yaatuwaayam mu ñu daan dénk ñun njaboot gi daan ñu dénk pour ñuy góor góorgóorlu di bay ku ci nekk sax di góorgóorlu am lu nekk ci affaire yéeg yi mun la demal nga bay waxoon na ni réew mi des na tuuti ci kanam ku amul tool booy bay doo am loo dundee waaw loolu nangoo naa ko ci làmmiñam mu ne réew mi des na tuuti ku amul tool boo bayee doo am loo dunde daanaka ñu ngi ci waaw te réew yi développé yëpp am lu ñu dunde la leen ko may mooy dañoo sukkandiku ci mbay waaw ñu jàppale leen ci nag waaw nguur jàppale leen ci waaye ñu jàppale ci seen bopp maa ngi wax léegi mbokk yi ma ne leen sëñ Babacar si daf ni woon euh, métier taalibe ñaar la commerce ak mbay. waaw mu ni mbay nag dangaa war a boole ñetti baat ba ba ñetti baa nee na ñetti taa ñetti tee mu ni teele teewe teegal nee na soo ko defee rek sa mbay dana dox waaw kon ngeen gis ni mag ñi lu ne am na fi moo tax ma ni bu ñu jàngalee xale yi dëgg dëgg dëgg dëgg suñu richesse ci li fi mag ñi bàyyi du ñu ñee kenn xoolal ñetti baat nga génn ci technique gu mbay mu ni commerce it mu tënk ko ci ñetti baat mu ni commerce dafa am ñetti bukki bukki bu njëkk bi mooy commerçant bi ci boppam bu sa bénéfice ëppee sa bu bu sa bu sa bu sa dund ëppee sa bénéfice bu yàggee nga lekk sa capital mu ni ñaareelu bukki bi nee na mooy banque bi banque li mu bëgg mooy di la lebal li ne ci sa poche mu jël ko ndax intérêt yañ cay teg mu ne bukki ñetteel bi nag mooy yow mi bay ñiy leb si ak ñiy jënd si mooy sa clientèle mu ne bu ñëpp dee leb si nga lebal leen nee na ñëpp duñu fayandoo te bu ñu fayul doo am loo jëndee sa marchandise waaw te yooyu boo demee ci technique de gestion yi yéen ñi jàng tubaab xam ngeen ni daanaka ci wàll woowu lay dellu moo tax Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu wax nañ ni tubaab yi dañoo ñëw ci moom ni ko dañoo bëggoon nga wax baykat yi ñu yokk seen mbay mu ne leen maa bàyyi leen ba ñu di ko jëndee njëgam waaw bàyyi leen ba li ñuy bay ñoom ngeen di ko jëndee njëgam su ngeen ko defee rek bu ngeen ñëwee moo wax leen ñu yokk waaye comme du ngeen ko jëndee njëgam su ngeen leen yokkuloo seen mbay dangeen leen di rey rek kon su ko defee tabaarakallaahu ah ci loolu lañ nekkoon di waxtaan ak ñoom faf ngeen yegg si ñu am mbégte lool ci fekkante yéen fii di ñaan yàlla yal yàlla gën leen a dëgëral te yàlla yàlla aar leen sàmm leen te mottali seen yéene zahiran wa batinan ñaanal ko suñu kilifa diine yépp te ñu ŋànk réew mi nag ŋànk diine ji yàlla yàlla guddal seen fan tabaarakallaahu ak kilifa àdduna yeeg ñépp tabaarakallaahu waaye ngeen may ma rek balaa may tëj ma sant soxna yii ndax tabaarakallaahu ah ñoom ñoo taaral jataay bi ci ngoon ba léegi ñu ngi fi kenn yokkatul kenn sonnul kenn tàyyiwul kon nag yàlla na yàlla fay leen yàlla na aar leen aar njaboot gi defal leen seen bëgg-bëgg yëpp ci biir njaboot gi ci ëtt bi ci kër gi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla suñu jataay bi yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay yàlla ñu ko teewe at yu baree baree bari mu ànd ak fekke ak tal te yàlla defal la imaam jàmm ak sutura jafal la sa bëgg-bëgg ci biir defal la sa bëgg-bëgg ci biti tabaarakallaahu ah nuy ñëw di la fi fekk projet yi di yéeg di kawe ba ñu naan li ko dalee fii ba ngaay projet bu fi nekk rek daara ji moo ko yanu yal na ko yàlla def ñu ngi sant xale yi bu baax di ñaanal ñaanal yàlla yal na yàlla ubbi seen dënn sol ci leeru xam-xam sol ci leeru alquran tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi gërëm ñëpp ni ko imaam waxee rek euh, kàddu yi cant yi moom ak ngërëm gi dañ koy def ñaan rek ñaan ñi fi teew ñëpp ku fi ñëw yàlla yàlla faj sa aajo ku fi ñëw lu la jaaxaloon ba teelaat nelaw yal na yàlla lijjanti ci diggante bi ba boo ñibbee biddanti eh, lu la soxlaaloon ci sa bopp ba nga fàtte yàlla yal na ko yàlla soxlaal ci boppam ba nga ba mu fàtte la eh, yal yàlla eh, yokk xéewal yi ci njaboot gi yal na yàlla saafara jàngoro yi rawatina njàngoro jàngoro bi fii am yal na ko yàlla wëññi yal na ko fi yàlla jële ba ñëpp delluwaat ci jàmm ba ñëpp delluwaat ci seen aafiya yàlla defal nu nu fekkee at yu baree baree baree baree baree bëri Seydi Hajj Maalik daf daan wax ni ah bu ma yàlla joxoñoon ni ma fee mooy sa palaas ci àjjana de du tee du tax ma ñaan dee waaw damay ñaan gudd fan rek kon nag tabaarakallaahu yàlla yàlla guddal fan yi yàlla may nu wér yàlla defal nu sutura zahiran wa baatinan yàlla sotti ci gox bi ay xéewali xéewal yu baree baree baree baree baree bari te bu ko yàlla defee yàlla nay seen njiglaay yàlla na yàlla dëgg ci defalal nu sunu biir defalal nu sunu biti zaahiran wa baatinan wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fa tabarakallah sëriñ bi jusi te xayra wa ko fii te soran wala la xaytama ba xayta duran béeg nañu kontaan nañu fatuwarkal la waxtaan wi dal na dañ na yëg nañu ci sa yéene ci noonu yëg nañu ci sa yéene ci daara ji yég nañu ci sa yéene ci julliti yàlla yi nii rek la ko sa waajur war daa defe Seydi Abdoul Aziz Sy fu ne taxawu nanu fa amul lu mu musa doon rek mu nangu nit jëme ko ci man lu dul noonu boo waxee wu ne xarifa pap waajurama ma ko dénkan euh, wax na ci sax loo xam ne deesu ko wax waajurama ma ko dénkan dëkk bi yoon bi mu fi ñëw bu ci nekk dina wax ci man loo xam ne ku nekk day yéemu euh, la euh, jitaay bii nga ñëw tey dama mos a gént jitaay bu mu ñëw fii ci palaas bi bu xumba xumb booba sax yàlla na yàlla may la fan wu gudd ak sutura ba nga def ko ëpp na yi yëpp bi nga commencé ñëw nag ma ne kon nag jitaay ba mooy bii Seydi Abdou Si euh, Seydi Ahmad Si yal na yàlla yokk sa kartan yokk sa sutura yokk sa wér yokk sa xam-xam yokk laa defal fan wu gudd ba daara ji kat lu fiy sotti sottee ci sa loxo loolu nu ngi koy ñaan sunu borom ndax baa yégee ne yow lañ nu booleel yàlla xam na ne yàgg na booba at yu bëreegul ci yow ba may ñëw di nekk fa sa waajur yéeg ni kat yow mii xam naa ni yow la nu booleel yàlla xam na ni yàgg na yàlla na yàlla yokk sa fan e, su ko fee nag Seydi Cheikh Sall ah, e, Cheikh Ahmad Tidiane Sall ni nga ko waxee rek yàlla na yàlla nu ngi ñaan ci moom noonu de ñoo ngi koy ñaanal ndam ndax xam nañu lu mu am jullit yàlla yëpp a ko bokk taalu bi yëpp a ko bokk njobootu réew mi yëpp a ko bokk daa koy wax ni ko yii ngay wax kër man lu tuuti ci man la li may yéene yàlla defal la ndomba yu kawee kawe yoo xam ne sa mébét de ca xaj waaye sa yéene ci réew mi sa yéene ci gox bi xajul ci lii ngay wax kon nag yàlla na yàlla yokk suturam yokk martabaam nu jox ko rek mu joxe ci ay kàddu fa tabaarakalla rekk nuyu mbooloo mi euh, sargal mbooloo mi rek te nga def ñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, sëriñ bi Seydi Ahmed ñoo ngi lay nuyu nuyu bu zel bu sell eh, di wax rekk nii am nañu mbégte bi ñu yàlla boole ci jataay bii ni mu ko waxee rekk wax dëgg yàlla diggante bi day loo xamante ni bii fi lañu ko fekk loolu nga doon nit ci sama maam léegi maa ngi sax euh, beneen bande boo xamante ni bii Seydi Serigne Pape moo ko doon nit comme ni ko imaam xalifa waxee ah dafa am loo xam yàlla moo ko dogal ni nga wax sama maam ak euh, Seydi Hadj Malick waaye comme ni mu la wax aussi nii euh, am naa samay rakk ña nga ca kër ga. parce que soxna Daba mbay ah Cheikh ak Aminata samay rakk lay ñoo bokk bàyyi donc kon nag euh, ñoo nga teew ci kër ga ah di kontaan lool nag rek parce que wax dëgg yàlla euh, amul lu luñ ci wax lu lu sëriñ bi ah, imaam Khalifa aussi ñu ko sant di ko gërëm parce que nit amul lu dul euh, maanaam lislaam nit amul lu dul diineem parce que lu waay nekk lu dul diine lu dul lislaam bisa ngay ñëw nga réccu ko euh, parce que dama koy wax rek ni leen euh, àddina moom luy jeex la kon nag këru dëgg ga fa lañ jëm fii jaar-jaar la rek manam ñi ngi joté récompense manam neexal yi bu ñu eggee fañ jëm lu fi way am ci digënté bi rek xamal ni bénéfice la motax war nañu farlu di def lu bax di wax lu bax di jëf lu bax lu ñuy def ñu xol ci suñu digënté ak suñu worom ta xamni ni bis lu mu yag yag dina ñëw ñu laloo suñu loxo ndijoor bii wéet ko xamante ni kenn duñu fa fekk yalla wax ñu ku nekk foo jaaroon nga wax ko loo defoon nga wax ko ah euh, yërmande nag euh, maanaam man dama naan yenn yi mënu may xëy suba di tàllal loxo fu ma julee ñaan yàlla yërmande wàcce ko ci man wàcce ko ci sama njaboot wàcce ko ci waajur yi ba pare ñi nga xamante ne bii ñoom laa yilif ci kàttanu yàlla duma leen yërëm yàlla dina leen lii contradiction la yaa ngi may sàkku ci man yërmande te yërëmoo ñi nga euh, jaboote yaa ngi sàkku ci man ndimbal te ndimbal dimbaliwoo ñi nga jaboote képp koo xamante ni yàlla jox na la loo xamante ëpp na sa wërsëg boo ko yëgee boo ko yëgul sedd loolu na la loolu man moom laa jàpp képp ku mu jox lu ëpp sa wërsëg am na lu mu la sant boo ko defee nag boo ko deful tamit yaa xam moo tax ñun dama koy wax sëriñ bi yàlla seede na ko kenn mënta wax mbaa nga euh, def loo xam ump na ko li ma tax a jóg mooy jàppale xeet wi jàppale sama askan comme niñ koy waxee ni ku nekk ñaari biir nga am sa biir bi ak sa biir bàmmeel waaye man fi ma toll sama biir bàmmeel laa gën a xintewoo sama biir bi suba gu ma xëyee fas naa yéene dawal ci sama biir bàmmeel loo xamante ni bii ah du doy parce que am na genn góor nee na ma ku dem àllaxi réccu ku fa dem réccu ku mu man di doon ma ni ko ndax lan moo am na ñoo xam ni kay buñ demee dañuy yàkkamti kii ak mun ma dañuy réccu ma ni ko ah lu ñuy réccu mun ma dañuy réccu li tax lañ doon def ci lu baax yokkuñu ko woon mun ma ñoom ñeppee réccu waa ki ki daan def safaan ba nag kenn werantewu ko moom bu ne yun rek neen delloo mooma eh, liggéey yi ñu ko léegi loolu wees ma moo tax yàlla nañ yàlla xiir ci def lu baax politik bi ñuy def nak sëriñ bi seede na ci kanamu ñëpp ni kenn du ci dégg ma saga kenn du ci dégg ma xaste kenn du ci dégg ma wax lu bon kay ñu and baax jarul ma ci dóorante ay kurpañ ta man nak dama lan kay leenu and liggéey jariñu lool lay woté gëm na ci yalla lool nak lu mu dogal lu mu dogal waye ni liggéeyal xeet yu ak askan wi ñoo ma tax a jóg dama leen fi ma duggee ci politique fu baax la xam nga lu tax bu baax dama cee def loo xam ne dama yàlla dafa def defaluma ko dara nag ak ceddo laa <laughs> waaye yàlla dimbi am na ndimbal yu ma jox yoo xamante ni bii ah maa ngi sant sunu borom. waaleykum euh, dina wax ni la ànd naag délégation comme ni mu ko waxee bu am solo euh, ax li kuntu sëñ Babacar ma nga ne yàlla dogal na tamit euh, li am mooy nit ñi ñooma ni Cheikh ah nga ñu parce que ñi ma jiitee ñëpp kat ku ci nekk mat nga candidat ba ëpp ko parce que parti boo gis mu nekk fii parti bu am solo ah nee na ma yow laa jiital ah, boo jëlee boo jëlee parti réew mi bu Idrissa Seck man la àndal nga jël parti socialiste man la àndal nga jël lu bari ci APR man la àndal nga jël LD ci man la àndal nga jël euh, SPD bu Matabaaru Jóob man la àndal nga jël mouvement AFP bu Moustapha Niasse man la àndal ñëpp man la àndal ah nga boole ci nag ñii nga xamante ni bii boo leen gisee xam ni vraiment caaxaan taxu leen a jóg xam ni aussi ñii tamit ay nit yi kilifa lañu ñu fas yéene àndandoo liggéeyal meewaan parce que nee naa leen man ànd ñi ma àndal euh, li li tax mu am solo. boo gestoo am na loo xamante ni bi ñoo xam bu ñu toppee sa ginnaaw am na loo xam mënoo ko munoo ko sañoo ko parce que ëppoo leen fu la ëppoo leen fayda gënoo leen juddu ëppoo leen xam-xam ñooñu bu ñu la jiitalee bu ëllëgee ci njub rek nga mën a tënku moo tax may wax ñëpp ni leen ci njub la ñuy tënku li nga xamante ni bii meewaan ko moom dinañ ko delloo meewaan li ci des dinañ ko wuti boole ci ak li nga xamante ni bi moom lañ daan def bañ joxagul dara kenn dénkuñu dara nag. waaye ñi ngi jëf ngir yàlla lii daal vraiment ku mu doyul dara dootul doy ku mu dalul sa xel dara dootul daal sa xel lii daal mooy mbir mi ah nga bi yoon sax guddal naa daw ma wax dëgg yàlla man ba du ma koy bari wax lool waaye damay ñëw rek ñi sàkku ñaan ngir yàlla dimbili ñu wax naa leen ni leen bu ñu ma dénkee mbir mi ñaari at laa may xar xar kanamu may waan soppiku ñaari at xar kanamu Meewaan soppiku commune yi gën a riche ci Sénégal commune Meewaan ci la bokk phosphate ngi fi zircon ngi fi solaire baa ngi fi ICS ngi fi tey baa ngi fi lépp euh, seen énergie ngi fi ak ñun ñi ñëpp sax nu soo menacé maanaam ñun ñi dëkk ci commune Meewaan bi xam nga lu tax ñun ñëpp dañoo toog ci kaw koom-koom léeg-léeg ñu dëkk fële laaj leen ay tey baak affaire yi léeg ñu ne rondul jël sa tool ñun ñi tamit ah, bon defe naa yi fi euh, sori na daal ci Kajoor euh, loolu nag wax dëgg yàlla war naa mën a dellu siwaat ci nit ñi ku ne gis sa bopp ñu mbir mi ñu di ko pencoo comme ni ko waajuroon waxee te bañ koo pàccoo loolu daal mooy sunu yitte di tàllal ñëpp loxo di leen tàllal euh, loxo li may terminer rek mooy foofu nga buleel bi fa président Macky Sall di dem maa nga woon ca waaw parce que Musafa keroog maa ngi ànd dongku Moustapha ak euh, Serigne Assane waaw donc maa nga woon dem na ba ci tol ba booba gerté lañ fa bay du bay ñu fa du donc mbir mi dal euh, man digënté do ci wax parce que mom lul talal sakku ñaan rek moo ñu war loolu dal dañu ñëw di sakunyan, ñaan yalla wacc jamm ci Sénégal yàlla wàcc jàmm ci meewan yàlla wàcc jàmm ci région Thiès wàcce ko ci Sénégal gépp feebar bi fi nekk yàlla jële ko fii yàlla wàcce koom-koom ñi nga xamante ne bi ñoo jiitu yàlla tànn ñi ñi gën ñu gën a jub ñi nga xamante ne dañuy liggéeyal seenu askan waaw te ñu nag ñu civiliser affaire bi parce que nit ñi dañu yaakaar ni politique maanaam loo ci def yàlla du ci bindal bàkkaar góor gu set wicc nga ñëw di ko waxal loo xam yàlla gën a xam ni lii dara lu ci dëkk ah bisa ngi ñëw de nga toog te àddina yàggul de dañ lay waxal loo xamante ni boo ko déggee danga naan non ñi fu ñu ko déggee ak lii di sos di wax ngir rek poñetu poñetitum àddina jaru ko te yàlla pare na sunu borom pare na du toog du koo xamante ni bii danaan kun man nag sama kii kun fekkoon Euh, euh, mom lu mu na mu am jigen ñi buñu buñu bu bëgg togu togg ceeb wala des trucs comme ça dañuy kër kër kër kër kër mais yalla bëgg amal mu am lool nak motax dal ñi ngi tàllal loxo yi di ñaan alaykum wa rahmatullah c'est le chef wax ji refet na jum yalla yal na yàlla barkeel li ngay sakku euh, boko ko nak nag manis gem ndax dañ wax ne ki amum ñaak sedd la ci bis bu amé xam nga ne di nga li mu jité di université mu yor ko ci di kudd amul ben dekk bu ne fi lu sedd na la ci lo xamne diga xamne sedd na la ci dama dégg keroog kuy wax ak moom am lu ma koy ñaan mu ne ko fi mu ne ma kenn lu ma am jox lu ma am commune bii laa koy jox lu ma am saa commune laa koy sédde eh, te dëggal na ko amul fenn ci commune bi lu dul boo fa demee jël na fa ab lim bu takku dugal ko fee mu nekk kon nag loolu doy na sant yàlla beneen bi ci deset li mu wax ni bis bu ma amee commune bi dee ko yëg dégg naa ma toog ak moom mu ne ma lu ma am te naruma ko bokk ak bi yàlla bu ma ko am loolu kon doy na màndarga kon yàlla na ko yàlla jox li muy sàkku yàlla na yàlla dëgër taxawaayam yokk martabaam yokk ko sédd ba mu yëg ni am na li muy sàkku loolu rek lañu doon wax ma pare sant la nag sama wóolër wu dikk léegi di sëriñ Mbàkke Mbay yàlla dogal dëkk bu ñuy tax daaru mbay fii fi la nekk e, waajuram itam di bokkoon ci kilifa ya fa toogalan maam borom Touba am fa cër bu rëy nag ba nëgëri cër baa ngay dox ñu fay dundal diine ji di fa dundal yoonu maam borom Touba di fa dundal nag alxuraan ak lu baree barit ci li nga xam ne moom la sunna soxla moom yàlla boole nu wëllëre moom sëriñ Mbacke Mbaye daa am fu mu demoon ba xaw a guddee moo si léegi nii ñu ngi la koy pare présenté di la wax taxawaayam nu yàlla boole nu ak moom nu soppante te yàllay kese moo tax soppante gi am loolu daal sëriñ bi e, ci gàttal moo doon kàddu yi nga xam ne moom lañuy wax rek bi may mujje mooy sant rajo ngaay bii nga xam ne yebal Pape boo demee directeur di Mahmoud Diop ak mboolem ñi nekk ca rajo ba nang nu jottali sunu cant yow Pape Thiamit nga xam ni yaa féetewoo ëttu daara yi yenn na yàlla yokk sa sutur ak sa wér ba nga gën koo mën a saytu gën koo mën a taxawee beneen bi ci des ginnaaw bu nu jógee ci rajo Ngaye mooy Safina TV bii nu ngi leen di sant ndax kët seenug déplacé ñëw fi teguñu ko ci benn sart lu dul kët su ma leen wutalee fere yu ñu dikkee rek. delu suma sumalintir leen jël see yóbbu leen ci dara kon Imam mi nga xamne moy imam imaam njay yalla dogal mu nek ci radio ba dox sunu diggante ak ñom ma nga lay yobanti imam la dale ci borom radio ba nga jottali nako sante directrice ba nga dot jottali ñuko sante mom Samba mi ñew moom nga santal nako sunu cantuk bop goo xam ne ci sa làmmañ ngay jaar ndax li ngeen def rëy na ci noonu li rajo bi def rëy na ci noonu taxawaay bi ñu def rëy na ci noonu waxtaan waa fa def kere rek ni ngeen ko tasaaree ak ni mu ni ngeen ko fonke rek loo rek doyen na sëkk tey na ngeen déplacé ak déplacé ni mu méttee ci suba ba tey fële ñu ndékkee ñëw bokk ak noonu bis bi lépp lu fi juddoo rek ak lépp fi xew jël nañu ko fas yéene ko tasaare ba àddina bépp dégg ko loolu mënunoo am loolu nga santal nu Safina TV ne leen na nu kontaan nañu yal na yàlla def ba rajo bi yëkkatiku gën a bokk ci rajo ak télévision yi gën a kawe ci Sénégal yëpp cër ci Sénégal gën a dund ci Sénégal yal nañ ko euh, maam laay boo dee nga santal nu sa sa papa ne ko njaboot gi yëpp kontaan nañu góor giñ ko euh, góor ko tudde woon yëg nañ ci leeram yëg nañ ci cëram yëg nañ ci martabaam loo rek la wax yéen famille euh, euh, cooneen famille nga yëg ni kontaan nañu taxawaay bi rafet na kera ba ngay liggéey bis bi ba tey amuleen benn itte lu dul bis bi rafet bis bi jaaru yoon bis bi tege ciw yoon loolu rek ci ngeen nekk kon loolu soxna mu ne na ci sa barkeb fa nga bokk ci sorofaaw yàlla bokk sa barkeb bàyyi sa barkeb maam nga ñaan ci ñaanal not ci daara ji yàlla def fi ndam li ngeen di sàkkoot ci Seydi Cheikh mii ngi nga ñaan ci sa barke maam yàlla dafa leen ci raw seen jot ak seen yaakaar sëriñ bi daal tey ñaan gi dañu lay forcer bal lay doon boo xam ne tey li nekk ci dëmmiri xool yi incha allah boo ñaanee sikk sa ba ni lépp dee fajo ku fi teew tey muy góor muy jigéen bul sikki sàkka teewul ci sa xol wallahi da doo fi jóge ci ñaanam gi te sa ajo fajuwul yaa koy ñaan simaaj ndax suñu wéju sëriñ Abdul Aziz daf leen a kos yéen ngir ngeen mën a ñaanal lii li ñu bëgg ñu am ko te xam naa ni boo ko ñaanee li ñu bëgg danañ ko am ah. kon nag yow yaa koy ñaan alhamdulilah boo ko boo ko ñaanul ndigal la ñaan ko incha allah te boo ko ñaanee yàlla dana ko def alhamdulilah rabbi ndax fii fii li nga fi suul ak li nga fi tabax yalla rek tax nga def ko. jërëjëf kon nag ñaan si euh, Fatoubarakalla Seydou Ablaye ndjay kon bala ñoo ñaan. nga teunk rek kaddu yi bi. ok ah, alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin mu melni li la sen radio télévision Safina TV rooti si woon ci dekk bu sel bi nga xamni modi tundu di fa tabarakallah andon ak yéen ci. programme bi nga xamante ni ay njëriñi neen soqikoo na fi tabaarakallaahu leer itam soqikoo na fi di am mbégte gu xóot gu kawe ci sunu sëriñ eh, Sidi Ahmed si ni ma ko waxoon ci njëlbeen ibnu sëñ Abdul Aziz si al Amin ibnu sëñ Babacar si radiallahu taala anhu ibnu Cheikh Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu ibnu Osmana ndax ñun foofu la yàlla dogal muy sunu rootukaay sunu maam Abdullahi Njaay min moo tudde digganteem ak sëñ Babacar Si radiyallaahu taala dafa xóot dafa kawe sama maam ku jur waa Tiwaawan la leen tudde soxna Faat Njaay eh, moo daan tegal ndabal raxasu sëñ Babacar Si moo ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay kon ñun foofu lañ féete eh, mu am ñeenti doom yu jigéen kenn ki mu tudde ko soxna astukan kenn ki mu tudde ko soxna safiyatu kenn ki mu tudde ko soxna roqeetu kenn ki mu tudde ko soxna faat njaay moomu soxna safiyatu ñang alxaaji mansuur bal xaw mi moo ko dugal dégg soxna roqeetu sëñ Babacar si radiallahu taala anhu moo ko maye sama caatum maam euh, tabarakallahu di góor ko Seex Sidi Haaji Malick radiallahu taala anhu kon loolu lu yàgg la Seex Sidi Mahamadul Mansour si borom daara ji yóbbu sama woy jur màkka ne ko yaay imaamu imaam yi ca tund Saar am na lu mu fa tabaarakallaa kon bu nu fi rajee ah lan doon séntu ca way jur ya gis nañu lu gën a kawe sunu njort wax dëgg yàlla nii la ko maam ya doon defe nii la ko bàyyi doon defe ba xëy làqu yal na yàlla defal leen aljana yi gën a kawe ci daraja yent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokk yi fi teew yëpp nag ziar mbokk yi fi teew yëpp ñaan yàlla daje bi yàlla bu mu nekk sunu mujj daje tabaarakallaahu suñu xalifa ñu nuyu la itam baax sant la gërëm la ci taxawaay bu am solo bii waxtaan wi am na solo am solo goo xam ne sëñ Sidi Ahmed mbokk yi boo leen xoolee xam ni kenn raful kenn jugul kenn yàkkamtiwul te bari na jotaay yu mel nii yoo xamante ni da ngay seen nit ñi diru ceeku yi dem waaye fa tabaarakallaahu yàlla xam-xam yàlla kaddu yi leer yàlla kaddu yi dëgg yoo xamante ni ku ci nekk rek am na loo fi roote kon yal na yàlla fayal na la ci daraja yent bi sallallahu alayhi wa sallam xamna kon li la Safina andi euh li ci rek moy tatan ñaan gi te barke jëf ma ngi ci mujj ga kon yal na yàlla nangu yëpp ci dara yonent sallallahu alayhi wasallam fi del ci wat dewen wala yene dewen yal na yee fi gën a na fi gën te nga bayyi xel nak li señ bi wax at tarbiya wa ta'lim ndax njangum kesse mu andul ak yar amul solo waye yang ak yar ñaar yoy ñoy and kon yal na fi yalla def njang mo xamanteni da fay and ak yar ba. yiw rek man fee soqi ko di nuyu di gërëm sama caméraman bi di sëñ Samba si moom itam di ko ñaanal baax wax dëgg yàlla ci soo ba léegi la fi ñëw fi la ndékkee itam ñu koy ñaanal baax yàlla defal ko tawféex ba tabaarakala lépp loo xamante ni eh, nit dina fa àgg ci wàll li mu yore sunu borom àggale ko fa te mu nekk njiglaayam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa ñaan gi xam ci ñaan gi sëriñ bi dina ci dugal maa ko fàtte woon Ñaawut Diouf euh, professeur la bu français Dawuda Coon mi sëtu ki ñu tudde bis bi moo tax ma xamee ak mom mbu mi ma sol moko ñaw tay ji jox ko imam mu andil ma mon ma li ngay sol ci bis bi maa koy ñaw maa la koy jox nga sol ko Euh, da te dama xëyeen démb bi may dox ay soxla ma ne bi bi ma waxee mbu mi ma ne kon de jaaxle naa mbu mi nga ma joxan ndax Seydi Abdoul Aziz maa ngi ñeenti garaam mbubbam waaye ginnaaw bu mu génn àdduna bi nga ma joxat moo ma ci dàqal dama dem teewaan moom mii mu lem garaam bu yéeme ku gis ma sol ko rek di nga ma xoolaat moom laa solan kër maskera kaala gaag mbaxana maag yépp ànd ca mu ni ma lii kat moom Seydi Ahmad mii ci li fi sëriñ Abdul si si bàyyi woon ci ay yéeram daa ko euh, jëfandikoo ci la bokk ko nag barkeeloo ko sëñ bi lu ëpp loolu ci kaw suuf démb fan yi yëpp ngu moom sol pour bëgg aaju yëpp faju tey jii nag ma ne comme kii jox na ma bi daal te yéene ma sol ko euh, bu ma ko solul itam yéene ji àgg na parce que mënuma comme yéene kii daal naa ko mottali Eh, kooku di Pape Ñaawut juuf yal na yàlla yokk suturaam yokku martabaam li muy sàkk mu nekk ci demiru xolom yàlla mi am kartan yal na ko ci defal lu kawe njortam ak yaakaar eh, eh, ndax ku nu bàyyi xel la te li mu nu def rëy na boo demee imaam nga jottilu na ko sunu cant sëriñ bi nag sax na ma ndax li mu ne yaay ñaan kon ci barke làmmañam barke làmmañu waajuram di sunu sëriñ Seydi Abda Cissé yal na yàlla yéege sunu barke lama ci lamaña wa ginnaaw bu mu génn àddina rek moom Seydi Abda Cissé feñu na ma ni ma e, su ma jàngee lii bii numéro bii numéro fu ma nekk ca kaw sare dinaa ko yëg lolu tuutiwul si fi ma aw ak ma wax wallahi la cieb bi mu nu mu a jox juróom-ñett koy cieb ak 300000 bi muy genn aduna cieb ba jeexagul amul lu nu mës a nekk rek te du moo ca nekk ak noonu yé ñeenti bu bu yoo xam ne bu ci ne ba ma ko jox ñépp day yëg ni ci yére yi mu daa sol di ko jëfandikoo ci la bokk loolu nag ku ko sa kilifa defal yépp ak ma lem denc ku te am lu ëpp loolu moo taxit lii mu nu wax bu bu nu ñaanee yàlla bal la dee ko def ndax ci fii mu ko tënk ci cofeel gi nu aman ak waajuram muy sunu sëriñ mu tënk ko ci bu ñu ñaane yàlla nangu ko lu waay bëgg nanga ko teewlu ci sa xol kon nu ngi def ñaan gi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqiim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 سبحانك اللهم أنزل علينا في هذه ساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت أحبابك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وانصر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم لا تقيبنا مما سألناك wala tahrim na mima rajawnaaka wax fas naa fil mahya wal mamaati innaka mujibu daawat allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalik wa addi kamalihi ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa anta farrij كروبنا وكروب عبادك وقض حاجاتنا وحاجاتهم ما علمنا منها وما لم نعلم بحق اسمك الأقسم التي إسا دعيت به أجبت وإسا سئلت به أعطيت بسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتخلق لنا بها باب الشر والتحسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على fa tabaarakallaa kon bu nu fi dajee ah lan doon séntu ca way jur ya gis nañu lu gën a kawe sunu njort wax dëgg yàlla nii la ko maam ya doon defe nii la ko bàyyi doon defe ba xëy làqu yal na yàlla defal leen aljana yu gën a kawe ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyu mbokk yi fi teew yëpp nag ziyaar mbokk yi fi teew yëpp ñaan yàlla daje bi yàlla bu mu nekk sunu mujjub daje tabaarakallaahu suñu xalifa ñu nuyu la itam baax sant la gërëm la ci taxawaay bu am solo bii waxtaan wi am na solo am solo goo xam ne sëñ Sidi Ahmed mbokk yi boo leen xoolee xam ni kenn raful kenn jugul kenn yàkkamtiwul te bari na jotaay yu mel nii yoo xamante ni da ngay seen nit ñi diru ceeku yi dem waaye fa tabaarakallaahu yàlla xam-xam yàlla kaddu yi leer yàlla kaddu yi dëgg yoo xamante ku ci nekk rek am na fi roote kon yal yàlla fayal na la ci daraja yent bi sallallahu alayhi wa xamna kon lii Safina andi won kon yalna na yàlla nangu yëpp ci daraja yonent sallallahu alayhi wasallam bu fi dellusiwaat déwén wala yeneen déwén yal na yëf yi gën a yokk yal na yëf te nga bayyi xel nak li señ bi wax at tarbiya wa ta'lim ndax njangum kese mu andul ak yar amul solo waye yang ak yar ñaar yoy ñoy and kon yalna fi yalla def njang mo xamanteni da fay and ak yar ba yiw rek man fee soxiko di nuyu di gërëm sama cameraman bi di sëñ Samba si moom itam di ko ñaanal baax wax dëgg yàlla ci soo ba léegi la fi ñëw fi la ndékkee itam ñu koy ñaanal baax yàlla defal ko tawféex ba tabaarakalla lépp loo xamante ni eh, nit dina fa àgg ci wàll li mu yore sunu borom àggale ko fa te mu nekk njiglaayam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.